salli ala sayyidina muhammad wa maa ngi nuyu euh, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, soxna si soxna ñi mas Haaj euh, Mansour mm-hmm. maa ngi nuyu képp ko nga xam ne mi ngi liggéey fii Safina FM di nuyu seen auditeurs yëpp di nuyu adduna bi yëpp mm-hmm. di rafetlu aussi <clears throat> liggéey bi nga xam ne moom ngeen di def macha parce que liggéey communication moom dafa nekk liggéey boo xam ni ci liggéey yi ëpp solo ci la bokk waaw parce que communication bu jaaree yoon rek yar la defar la taxawu la te loolu mom moy doomu adama loolu mom moy penc donc ñu ngi rafetlu bu baax euh, liggéey bobu di rappeler tamit ne euh, plateforme communale boobu euh, ci bir Safina ci la bokk. macha allah donc je crois que ñun ñoo bokk liggéey bi. Mhm. Euh, ñoo bokk tamit jubluwaay mais en tout cas maa ngi rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne moom ngeen di def fii. macha allah ñun itam ñuy rafetlu bu baax di kontaan lool dalal la fii ci studio El Hadj Omar Foutiyou Tall macha allah euh, Thierno mi mu déggee ni professeur Djibi Diakhaté la ñuy invité mu ne ah macha allah kooku ndaanaan la kon nag ndaanaan bu fekk si ay ndaanaan kon ak mm-hmm. euh, lan la lan mooy sociologie. waaw euh, sociologie dafa nekk euh, xeetu xam-xam boo xam ne li ko tax a jóg mooy jàngat jafe-jafe yi am ci pénc mi. Mm-hmm. parce que boo ko dee xool xam-xam yëpp li leen li leen tax a jóg mooy jafe-jafe. Mm-hmm. jafe-jafe la ñuy jàngat. xam-xam boo xeetu xam-xam boo mënti gis. jafe lay xool jéem a xam lu waral jafe-jafe boobu ak naka la ñuy def ba ba ba saafara ko. donc jafe-jafe moo ko tax a jóg boo xoolee médecine médecin bi jafe-jafe moo ko tax a jóg bu fekkoon ñëpp a ngi wér kon soxla wu ñu médecin donc jafe-jafe mooy am ci ci euh, euh, doomu aadama bi ci mhm. wér gi yaramam donc médecin jéem a xool naka lay defee ba saafara loolu mhm. euh, donc xeetu xam-xam boo mënti jël mhm. jafe-jafe moo ko tax léegi nag jafe bi dafa bëri ay fànn ñii ci yaramu doomu aadama la ñii ci gàncax gi la ñii ci suuf ji la ñii ci garab yi la ñii ci jaww ji la ñii nag ci pénc bi la Mm-hmm. voilà donc sociologue bi moom ñii ci xelu doomu aadama la am na ñoo xam ne xelu doomu aadama bu demee ba am ay jafe-jafe dañuy dem ci ñoom ñu xool ko mooy psychologue yi mm-hmm. donc sociologue bi moom pénc mi day dem day pénc moo gis ci àdduna mm-hmm. pénc moo gis day am ay jafe-jafe ndax pénc moom ñëpp mënuñoo bokk jubluwaay day am ñoo xam ne dañuy teg ni jubluwaay bii la ñu war a jaar mais fu noo mën def di nga gis ñoo xam ni dañuy wàcc yoon woo wala ñu teg ay charte daal ni charte yi la ñu war a tënk suñu bopp waaye fexe ba ñëpp tënk seen bopp ci charte yooyu donc di nga gis toujours ñoo xam ne dañuy dañuy wàcc lu yooyu di nga gis yoo xam ne tamit day jóge bitim réew di juux ci penc bi mhm. boo xoolee suñu penc yi nii bëri na ci loo xam ni ci dañuy toppandoo ñeneen quoi mhm. mu indi ay coppite bu indi ay coppite indi ay jafe-jafe mhm. donc loolu nag la sociologue bi di jéem a euh, jàngat jéem a xool jafe-jafe yooyu lan moo ko indi lan moo ko waral naka lay manifesté woo ak yan yoon la ñu mën a jaar pour saafaraal loolu maanaam moom moo ci tënk mooy sociologie. Hmm. ñu gis ni sociologie dafa doon branche boo xamante ne euh, du ma ne yaatuwul bu baax vers les euh, années 90, euh, vingt lañ ko gën a installé au début dañ doon wax ni la sociologie c'est une discipline bourgeoise loolu lan nga ñu ciy wax. en fait sociologie amoon na Sénégal bi grève 68 1968 amee. Mm-hmm. le Senghor tëj département sociologie bi amoon daan ni ñoom ñoo indi grève bi. Mmh. waaw parce que li ñu li ñu gënoon a jàpp <laughs> mooy. Mmh. sociologie comme ñooy jéem a jàngat penc meeg yu deme noonu. Mmh. ñooy xam yenn affaires yi. donc euh, discipline la boo xam ne day indi ay ay jafe-jafe dafay indi ay problème parce que lu nit ñi di xaw a ñeneen ñi bañ koo xam. ñoom ñoo koy génnee. ñoom ñooy yee nit ñi. te yenn saa yi nga am façon njiit yoo xam ne du bëgg nit ñi yeewu. comme comme ni ko wolof di waxee rek ku ku ku denc ca kaw. boo bëggoo ko téen bëggoo ci kaw yaay bañ ko téen da ngay bañ ko mhm. téen naam léegi nag 68 euh, ñu tëj département bi mhm. dem nañu ba dans les années 90 lañ ko ubbiwaat mhm. donc da ngay jàpp ni 1968 ba dans les années 92 93 sociologie amul Sénégal donc léegi comme amul Sénégal pour jàng ko nooy def da ngay dem extérieur xanaa donc ñi am rek ñoo ko mënoon def. Mhm. moo tax ñu ni c'est une discipline bourgeoise. ok <laughs> macha allah macha allah euh, macha allah Hadj Mansour. rafetlu loolu surtout ni mu ko ni ko. ni mu ko faram-fàccee dafa am mhm. solo. Mhm. ak leeral yooyu ci ci ndaw li nga xam ni mi ngi doo a dugg ci école. Euh, war a jàngi nag pour pour a ëllëg. rawatina ni ñu waxe ni ñu jàngalee ni ñu waxee euh, mission Euh, métier bi ci boppam. naam moom nag foofu la ñuy jaarale. naam waxtaan lu ñëw ci actualité. macha allah ñu dugg ci actualité ñu gis ni professeur euh, Sénégal dafa doon euh, peut-être société bu xaw a je dirais pas melting pot mais bu xaw a bizarre en quelque sorte parce que dañuy gis ni saa su événement amee nit ñi dañ ciy profité muy am ay manifestations nit ñi xamuñu peut-être li gën ci ñoom xamuñu li gën ci mais ñoom instant boobu noonu li seen seen xal ak seen euh, euh, pas plus tard que la semaine dernière avec les manifestations euh, à travers le Sénégal ci y a eu un soulèvement par rapport au ci actuellement ñu ci jamono du manifestation ñu gis la société sénégalaise ñenn ci société bi ñu ñuy wu wu ban nga ci bi ñu société sénégalaise société sénégalaise moo amul dafa am ay société sénégalaise yu bëri te ñun dañuy jàpp ni société sénégalaise benn la doono du benn dañu dafa dafa dafa bari ay wuute dafa am ay société yu bari dama lay jox benn tegtal mhm. fii Sénégal am na ci bërëb boo xam ne boo fa demee fii ci Sénégal jigéen bu amul doom doo am boroom kër ah. donc balaa ngay am boroom kër foo nga am doom ba pare ci Sénégal waaw te tey ñu yaa ngi Sénégal pour wax la ni rek yow ah, dafay mel ni génn nga réew mi dëgg la waaw te mi ngi fii kenn du mën a wax ni loolu du société sénégalaise da nga naan du Sénégal te pour pourtant société sénégalaise fii ci Sénégal am na ci barab boo xam ni boo demee gane ji am fa am fa am di jàmm ñëw gane si ko mhm. fekk moom mi ngi ñeent wala juróom yi soxna am na ñuy am lu ëpp loolu sax ci yenn sociétés yi mhm. boo demee daf lay jox benn soxnaam ba keroog ngay ñibbi allahu akbar nga nekk ak moom fii alors léegi boo boo gisee loolu yëpp ma ma wax ko c'est pour wan la ni. Mhm. Euh, société sénégalaise dañuy wax société sénégalaise rek tënku ko mais dafa am ay wuute. Mhm. moo tax boo gisee xeexu Cheikh Omar Foutiyou Tall. Ah. Euh, rabi yàllaahu anhu. Mhm. yàlla yàlla yokk leeram te taasuñ ci barkeem. moom xeexam dafa nekkoon fexe ba ñëpp tënku ci charte yi nga xam ne moom la diine l'islam def waaw. xeex boobu nag ba léegi mi ngi fi. dama laa bëgg a wax ni am na ci ñoo xam ne ba léegi. ci yeneen dimension la ñu nekk. Mhm. am na ci ñoo xam ne sax dañuy àtteewoo ni jullit lañu mais la ñuy jëf bis bu ne daf leen di delloo ci ay diine maam diine yu njëkk yooyu. Mhm. Mhm. nga xam ne euh, dañuy continuer di jëf yoo xam ni dafay xaw a sore tuuti diine l'islam. te pourtant dañ naan la ay jullit lañu. waaw donc loolu pour wan la rek ne société sénégalaise. Euh, dañ koy wax ni ñun ñëpp ñoo bokk benn bopp un peuple un but une foi tel n'est pas dafa am diversité benn ñaar li xew ci dëkku kaw yi bokkul ak li ngay fekk ci dëkku taax yi parce que dëkku kaw yi boo fa demee ña nekk ci dëkk ba yëpp ay mbokk lañu mhm. loolu moom moo tax ñuy wax kër boo déggee ñu naan kër Mbay Fall kër njaayloo kër Musa mhm. boo diggee kër yooyu mooy kat sañ ci dëkk ba moom mooy maam ji te ña bokk ci dëkk ba ña nekk ci dëkk ba yëpp ci moom la ñu meññ léegi mu nekk këram dëkk bi day nekk këram kër Mbay Fall kër jaayloo kër Moussa boo demee ci dëkk wolof yi souvent kër da nga koy dégg mhm. mooy ñun ñëpp nag ñun ñoo bokk benn kër ay mbokk lañu mhm. xam nga foofu lijjanti ko dafay yomb mhm. parce que dafay am toujours xalif ci dëkk boobu maanaam ka ci gën a mag bu waxee ñëpp mën nañoo tënku seen bopp ci loola boo demee ci xalpulaar yi dañuy wax saare ñu waxee saare moom mooy waa dëkk ba am na fu ñu bokk euh, boo demee ci ñeneen ñi dañ lay wax kunda da ngay dégg euh, Cissé kunda Euh, da ngay dégg Turekunda. Mhm. da ngay dégg Tambacounda. Tambacounda mooy ñi sant Tamba. donc <clears throat> mooy ñi nga xam ne ay mbokk lañu. Mhm. <laughs> léegi dëkk yi noonu la organisé woo dëkkumaan bi. moo tax ci dëkk yooyu benn boroom xam-xam bu ñuy wax Evans Pritchard nee na da ngay nekk mbokk walla nga nekk noonu. dangay nekk boo ñëwee. Mhm. dañ lay def mbokk moo tax boo ñëwee rek dañ lay jox sant boo xam ne dañ lay dañ lay ngéntewaat. loolu loolu la Gastelou di wax l'égalitarisme de no par exemple boo ko dee xool Sénégal Koulibaly dañ naan mooy Fall. jara mhm. euh, dañ naan mooy jóg si mhm. Sissoko dañ naan mooy Guèye. Mhm. Diakhaté dañ naan mooy Ba. loolu boo gisee ñu def ko mooy gis nga train bi bi ñu ko defee diggante euh, Sénégal ak Mali. donc mi ngi doon déparé Kaay di ñëw ba Thiès looloo indi Thiès Kaay. benn dëkk ñaari <laughs> gaar. Mhm, macha allah kaay moo nekk ca Mali. Mhm. donc ñoom bu ñu ñëwee. dama lay wax ni boo demee Mali di nga fa fekk ay dëkk yoo xam ne di ngi tudd wolof a bugg maanaam foo xam ne wolo fi ñoo fa dëkk. Mhm. waaw boo demee kaay di ko fekk foofu boo demee Bamako di nga ko fekk. donc léegi bi ñu ñëwee fii comme ñoom dañu ñëw indi da ngay jógee Mali ñëw sant Coulibaly il faut ñu jox la sant fii ni la Fall bu ko defee ñu mën a kalanteeg yow. nga nekk mbokk nag. loolu moo am dëkk kaw maanaam dëkk kaw nit ñi xaw nañu tënku ci dara dañu xaw nañu am foofu kilifteef léegi nag boo ñëwee dëkku taax dafay xaw a compliqué parce que dafay mel ni dox daje kii dafay jógee fële kii jógee fële bokkuñu dara. Mhm. alors ko nee naa la dëkk kaw ñëpp ñoo bokk. donc ñëpp pour nga centraliser leen du yomb. loolu moom mooy indi jafe-jafe yi. Mhm. loolu nag surtout surtout ci banlieue yi. wala ci yenn cité yi. Mhm. defal cartographie yàgg naa ko wax agression ñii agressé mm-hmm. boo xoolee am na quartier yoo xam ne duñ fa dem yoof yoof village mm-hmm. duñ fa dem duñ fa dem parce que vivent en communauté voilà bu kenn yuuxoo rek ñëpp dañuy ñëw dimbale la waaw mais booy ñëwee ci suñu cité yii mm-hmm. boo yuuxoo kenn du la faale parce que kenn du bokk kenn loolu nag moom moo xew ci dëkku ka loolu nag moom mooy indi jàmm boo dee xool manifestation yooyu yaa ngi koy gën a gis ci dëkk yi nga xam ne euh, dox daja la mais dëkk yi nga xam ne tënku nañu ci kilifteef bu kilifa bi waxee xolal Touba la fa bi xale yi jógee génn kilifa gi jóg wax ci suba sa ñoom ñëpp dem jégalu ci daal ni dootuñu ko defati mhm. loolu la dëkk boo xam ne am na nit ñi noonu la ñu mhm. dafay gën a yomb mhm. mais dëkk boo xam ne nit ñi dañuy dox daje dafay xaw a jafe pëccëxoo gi day bari dafay bari woote wallu boo ko defee kenn du la faale te agresseurs yi comprendre nañu loolu donc dañuy dem ci immeuble boo xam ni nit ñi ñoo bokk ci immeuble bi ñu dëkk mais kenn xamul sa morom. xam nga loolu Dakar bëri na fi. loolu rek moo fi am sax. ba voilà donc loolu moom mooy indi ay jafe-jafe loolu nag malheureusement. Ah. suñu plan d' aménagement du territoire suñu occupation de l' espace. loolu moo tax sociologie tamit urbaine ñuy wax sociologie urbaine di xool ni naka la ñu mën a def ba bu ñuy sànc tamit ñu tenir compte ci loolu. ba nga xam ne nit ñi mën nañ jóge fu nekk mais mën nañu fexe ba créer benn genre mbokkoo ànd ak ñoom ba nga xam ni. Euh, du ñu nekk tasaaroo ku nekk tëju ci sa bopp mel ni ay tubaab mhm. boo demee réewu tubaab yi da fay fekk loolu te même tubaab yi sax léegi ñu ngi jéem a organiser wu di xool naka la ñuy régler seen problème ci biir quartier yi mhm. mais ñun euh, dañu topp tubaab yi ba xaw a réer quelque part parce que boo ko dee xool ci vraiment yenn cité yi mais ñoo raw sax tubaab yi ah kenn du wax ak kenn kenn du dugg ci problème bu kenn kenn ku nekk da tëju tëju ci sa biir bu kee amee problème sa yoon nekku ci yow boo amee problème kenn du la wàllu mën nga dee sa kër kenn du ci xam dara nit mën na la agressé kenn du la faale donc agresseurs yi comprendre nañu loolu donc ñoom ci cité yooyu la ñuy gën a jublu mais doo leen dégg mukk euh, Cambérène village mhm. doo leen dégg mukk yoon Yoff village mhm. mais yenn cité yi nga xam ne ku nekk bopp sa bopp la dañ naan fii nag moo baax ci ñun parce que bu ñu agressé wóor nañu kenn du kenn ñu déranger kenn du si donc moo tax. Mm-hmm. société sénégalaise dafa dafa bëri dafa dafa dafa yaatu dañuy wax société sénégalaise mais ay société yu bari la te euh, jafe-jafe bi nga xam ni noté nga ko sànq moom mooy loolu bu fekkee wuute dafa am rek pour ñu mën a déggoo tënk suñu bopp ci benn ci benn kàddu ñëpp jàpp ci loolu. Mm-hmm. loolu dafay xaw a jafe. Mm-hmm. donc buñ nee par exemple feebar bi euh, dajaloo bu bëri baaxu ci da nga gis ñoo xam ni dañ naan bon ñun dañuy dajaloo parce que gëmuñu loolu. wala ñu ni politique rek. Euh, lii amul amul amul amul fenn. Mhm. man dem naa euh, dama koy rappeler toujours dem naa samedi bi passé benn takk ci benn dëkk damay bañ a wax dëkk bi fii ci Dakar la mhm. bi ma fa demee dëkk boobu noonu kenn solul masque mag ndaw góor ak jigéen. Mhm. jàkka ji jàkka ju xat la bu xat vraiment mais man maa compté deux cent huit personnes ñi woon ci biir jàkka ji. douze personnes ñoo ci takk masque. imaam ba takkul masque ñi ko jege kenn takku ci masque. man bi ma ñëwee yërnu mu xat ma génne sam sijaada lal ko ci biti. daal ni xaal ma julli ci biti dama ko lal ñaari mag ay pa fekk ma fa ni ma defaral siyaada bi ñun ñu bokk ci ñun tamit <laughs> donc yow ngay daw xar xar <laughs> yow ngay daw xar xar ñoom ñu ñew ni la yaatalal sa jaada bi ñu bokk julleen do mu julleen ko baye en fait <laughs> c'est pour dire que ah, moom mooy moy non rek mm-hmm. te pourtant xeyna defu ñuko sax pour défier mais lolu mom moy seen gëm-gëm seen gëm-gëm surtout wa lolu la la bëgg wax ne mm-hmm. lolu moy indi société yu bari mm-hmm. ñom ci lolu lañu teunku ci lolu lañu gëm ci lolu lañu nekk légitimité la boo xam ne moom la ñu ci loolu rek la ñuy dox quoi léegi nag bu fekkee ni da nga bëgg indi ay changement il faut nga dugg ci biir légitimité boobu gis nga nit ki li mu gëm. Mhm. da nga ko ciy fekki waaw mais mënoo nekk fële ci biti. ni ko lii ngay def bëgg xam nekk ci biir waaw loolu du mën a sotti. il faut nga dugg ba ci biir nga mën a comprendre gis nga ñi nga xam ne dañuy xarafal jigéen. Mhm. am na ci ay études yu bëri euh, benn bi Marie non pas Marie Cécile euh, Marcel Griol moom moo ko def mu ne boo demee ci dëkku dogon yi. bu njëkk dañu jàppoon ni ñoom àdduna bi nen la woon mhm. ci biir nen bi yàlla moo ci nekkoon mooy ama mooy la dieu ama mhm. ak doomu adama benn doomu aadama bi ogoo la tuddoon ogoo boobu moom góor a jigéen la woon donc ci moom dafa amoon ñaari cër yi mhm. moom ak yàlla rek ñoo nekkoon ci biir nen bi léegi yàlla ni ko bu fexeel ba nen bi bu ko jéem ma toj pour xam li ne ci biti yàlla ji amaa la tudd benn bis nag ogoo gis ni yàlla ja ngay nelaw mu ne xaaral ma profité ci toj nen bi pour xool li may nëbb mhm. léegi bi mu commencé di toj nen bi bruit bi mu def moo yee yàlla ji yàlla ji ni ko yow li ma la doon teree moom ngay def mhm. léegi nag dinaa la génne ci nen bi wàcce la ci suuf mais balaa ma lay wàcc ci suuf dama lay dagg en ñaari en deux parties parce que comme yow da nekkoon góor ak jigéen léegi dama lay séparer sa partie góor ak sa partie jigéen dañuy séparer wo mhm. noonu la góor ak jigéen commencé amee mais bu njëkk benn la woon léegi nag ñu jàpp ni góor boo ko xarafalee parti jigéen bi nekkoon ci moom moom ngay dindi boo xarfalee góor mhm. parti jigéen bu nekk ci moom moom ngay dindi bu ko defee mu soog a nekk góor kese mhm. jigéen tamit boo ko xarfalee partie góor bi nekkoon ci moom moom ngay dindi mhm. bu ko defee mu nekk jigéen kese moo tax nag c'est les dogons tant que góor xarfalawul nekkul góor parce que day am parti jigéen bu des ci moom parce que bul fàtte ni ogo góor ak jigéen la woon léegi jigéen tamit boo ko xarfalul nekkagul jigéen totalement day am parti góor bu nekk ci moom moom moo tax ñoom ñuy wax bila koro mm-hmm. boo demee ci bambari mooy ki nga xam ni matul jigéen bi nga xam ni matul mooy ki ñu xarafalul voilà mooy ki mm-hmm. xam nga loolu boo ko comprendre nga ñëw ni leen bàyyi leen xarafal yi waaw dañ lay song loolu laa la bëgg a wax c'est-à-dire nga xam ñoom seen pour mu mat pour nit ki mat il faut loolu ñu jël ko ci nit loolu nit ku gëm loolu nga ñëw ni ko li ngay def baaxul mm-hmm. fan nga teg loolu boo ko ne li ngay def baaxul mun la yow li ngay def moom moo baax donc nit ki il faut nga comprendre moom ci li mu tënk lu mu doon léegi ci biir lu mu tënku ci nga mën a jëflanteeg moom malheureusement yenn saa ni ñuy jëfe man damay jàpp ni yow kiy toog cigarette nga ni ko tox baaxul moom ñu ci bëri xam nañ ko de mhm. xam nañ xam nañ cigarette baaxul xam nañ ni de toute façon da nga ci ñàkk sa xaalis mhm. da ci ñàkk sa wér-gu-yaram mhm. te yenn saa sax sa yére yi fu nekk foo ko fekk mi ngi oh, fekk mi ngi bëttëg fu ne ba pare ñu bindal ko ci ni ko abus dangereux pour la santé voilà li ngay toog mais mais quand ko lii day dafay yàq sa wér-gu-yaram moom xam na ko mais il faut nga dugg ci biiram ba xam hmm. lu tax moom muy laal cigarette boobu hmm. bo boo munul boo xamul lu tax ci lan la tënku parce que am na lu ko ci poussé effectivement peut-être ay problème la hmm. peut-être c'est que ñun duñu def effort comprendre man damay ñëw ni sëñ euh, Cheikh Mansour damay ñëw ni ko sama biir day métti mu ne ma jëlal Ganida mais man bu ma ñëwee ci Mansour ni ko sama biir day métti xam naa ni du médecin donc man xaaruma ci moom mu may wax garab bi may jël ma xaar ci moom mooy mu mu dalal la soulagé la mu dund ak man biir buy metti boobu mm-hmm. mais ñun nag suñu problème mooy mënuñoo conseiller nit day ñëw wax la problème nga xas ko wala nga yedd ko. wala nga jox ko orientation ba moom li muy xaar ci yow mooy waxtaan mhm. assistance euh, psychologique bi ñu soxla. moom moo manqué ci société bi. Mhm. am na koo xam da koy da koy da koy da koy ràkkaati. Mhm. am na koo xam ne day yokk sax coo euh, problème am. parce que ñëw wax na sama soxla ñëw wax na sama jàngoro. wala ku nga dalal ma nga commencé maa yedd. ça veut yokk problème. te et puis sax day tax su ma ñëwee nga dalal ma. Euh, foofu am nañ ci problème dañu bëgg yeddaate mhm. dañu bëgg yeddaate trop man damay ñëw ne la man daal euh, vraiment euh, jeune ne sais pas dama am sama soxna daal dama am problème ak moom parce que dama ko digal benn affaire def ko mhm. ah, nga ñëw ne ko non yow da ngaa ni ngay defee soxna si du noonu da war a def nii et cetera et cetera du mhm. noonu cest dire que nit tamit dafay mën na def erreur mais li muy xaar ci yow mooy nga jàppale ko ci loolu. ci erreur. mais pas nga pas nga pas nga xas ko. nga dalal ko déglu ko. surtout am nañu mhm. mhm. boo xam ne man maa leen ko mhm. boo xam ne ñoom effectivement moom mooy seen problème te ñoom ñoo koy génneel seen bopp. te le plus souvent ñu problème bi seen bopp ñoom ci seen wàll bopp. dinañu mën a génnee solution. parce que. voilà yow nit ki tant que xamul problème bi exactement lan la pour mu génne solution bi dafay xaw a jafe. Mhm. masalan euh, masalan mooy exemple. naam léegi euh, nga am benn ku góor ak ku jigéen. Mhm. koo xam dañuy sëy ay way dencante lañu. Mhm. mais ñu am ay jafe-jafe parce que ku góor ki dafa tële. loolu mooy jafe-jafe bi. léegi yow mais chaque jour ñu ngi jàppante yow nga ñëw ñu woola pour nga jàppale leen nga laaj ku góor ki lu xew moom rus na laa wax ni dafa tële. léegi lim lay wax mooy kii daf maa déggalatul lu ma ko wax mu bàyyi. mu bañ nga dem ci ku jigéen ki ni ko yow tamit da ngay bàyyi li ngay def parce que sa borom kër nee na mu ni non non non du loolu moom du toog ci kër gi jamono ji nekk ma ngi ci biti. gis nga waxuñu la li xew. Mhm. léegi yow tamit ngay ñëwaat ci kële ni ko sëñ bi yow it doo toog ci kër gi dangay dangay dox guddi ngay ñëw et cetera et cetera yedd ko est que réglé nga problème bi. ah. parce que xam lan moo tax réglé wu problème. parce que xamoo luy problème boo xamul problème bi mënoo ko régler. te bi nga yokk problème bi sax yow. loolu mooy triangle de Karpman. Mhm. boo déggee ñu naan triangle de Karpman mooy. nit ñi bu ñu amee problème fexeel ba ñoom ci seen bopp nga wax ak ñoom am nooy duggante ñoom ba ñu génneel la problème xam nga nag duñ la ko teel a wax. Mhm. dafay laaj yow yaay xam. doo yàkkamti naka doo yàkkamti. Mhm. naka ngay def ba ñu am kóolute ci yow. kóolute ñu wóolu kóolute ci yow. parce am na loo xam ne balaa kaa nit génnee. voilà ci kenn confiance day ñëw. voilà ba ñu am kóolute ci yow génneel la. problème bi mais gis nga buñu xasse ba génné problème bi bu boba ñom ci seen bop mën nañu trouver safara bu fekkee ni ku góor gi dafa télé bu boba mën nañu xol ñom naka lañuy défé safara ba dund ak lolu ba gérer ko mais tant que wo problème bi mais noo koy régler problème buñu buñu buñu génné wul mënuñu ko régler mm-hmm. donc euh, bokku na ci liggéey bi ñun jéem xol li nga xamni mom moy mooy dëgg problème bi mm-hmm. mais lolu da fay laacc euh, nga dem ñi ñi wax souvent observation participante mm-hmm. nga dund ak nit ñi Euh, jege leen et puis moytu teg sa bopp fenn fi. moytu fenn fi yëkkati sa bopp ba mu kawee yëkkati sa bopp foo xam ni tolloo fa. gis nga euh, ñu tedd ñii Cheikh Omar Foutiyou Tall. Mhm. tedd vraiment mais boo leen gisee nit ñi wàccee seen bopp. Mhm. ba ba ba nit ñi. Mhm. waaw parce que yàlla may ne lu lu ne mais dañu wàcce seen bopp ba tolloog nit ñi yàlla nag moom moo ni ku wàcce sa bopp ma yëkkati la. loolu moom moo moom moom moo am man euh, rencontre famille euh, omarienne bi nga xam ne moom moo mujj am fële. Euh, méridien près King Fahd Palace man bokkoon naa ci ñu doon animer conférence mais gis nga Thierno bi bi mu ñëwee nuyu ma. Mhm. ñu présenté ma ni moom moom la man sama yaram dafa daw parce que. parce que parce que wàcc jooju dal jooju mhm. simplicité boobu mhm. leçon yooyu nag la ñu war a jàng tamit ba pare ñun tamit tënk ci suñu bopp mhm. loolu nekk na jafe-jafe yenn saa yi ci suñu penc bi nit ñi dañu gaaw a dañu rëy dañu rëy dañu gaaw a yëkkati seen bopp euh, nit nag boo yëkkatee sa bopp rek c'est ko comprendre dara comprendre dara parce que waxumal dara mais il faut ñuy fàttaliku bis bu ne ni bu ma fanaanee ba suba rek yàlla la neex wallaahi bu ma yendoo ba ngoon yàlla la neex. Mm-hmm. donc man moomu ma sama bopp dañ maa moom. dëgg la donc bu bu boo defee loolu ci sa bopp. un di nga dal di nga yem mais di nga jox cër doomu aadama parce que doomu aadama yooyu noonu mm-hmm. bis boo fi jógee ñoom ñoo lay yóbbu. lii waa ji wax naan compte bancaire baax na lool. Mm-hmm. waaye tamit nañuy fàttaliku compte bàmmeel. lu mot a bàyyi xel la <laughs> waaw la aussi boo xam ne fii fii nga booboo mot a sax booboo mot a def sax nag <laughs> yaay compte bancaire rek la ñuy lijjanti ñoom <laughs> biram compte bancaire rek compte bàmmeel daal booboo mat a lijjanti macha allah yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun 98 point 2 waaye yéen a ngi ànd ak ñun ci Safina TV Safina TV mhm. euh, dañ dañ noonu la ñuy ubbee téléphone yi kenn ku si nekk soo ñëwee yaa xam yaa ñu ngi dégg professeur kenn ku si nekk bëggoon a jokkoo ak moom mhm. te yàlla dogal ko ci plateau taxawu askan wi 88 mhm. la 628 10 95 moom incha allah suñu ñëwee rek daañu ànd ak moom incha allah euh, waaye professeur foofu la ñuy ñëw mhm. ci jafe-jafe yooyu nga xam ni wax nga ko te nit ñi di ko dund ñu ñëw ci jamono joo nga xam ne ñu ngi ci jamono yi mbas adduna bi yëpp bokkandoo ko muy benn jafe-jafe mais ba léegi suñu xoolee ci réew mi nii soxna ñu maa doon wax léegi dafa mel ba léegi nit gëmul ni problème boobu la waaw dafa dafa dafa am effectivement ñoo xam ni euh, dañoo gëmul ni am na te bëri nañu. Mm-hmm. bëri nañu euh, ñenn ñi dañu naan ñoom gisuñu ku ko am. ñenn ñi dañ naan la euh, mbir mi dafa mel ni politique daf cee daf cee lan mm-hmm. alors loolu yëpp moom laay wax rek léegi tout dépend di ni nga ko waxee nit ñi parce que tamit niñ ko xaw a songee mm-hmm. dafa xaw a am problème boo ko dee xool gars yi dañu nekk fële ku feebar ñu dem jëli la yóbbu xam nga day loolu dafay xaw a indi njàqare ci nit ñi mhm. ku feebar fale ñu ñëw sol seen ay tenues yu weex ñëw fekk la fa nga nekk jàpp la mel ni ku jël benn prisonnier ku def dara ku def dara dem tëj la foo xam ne kenn du la ber la foo xam ne kenn du la mën a gis mhm. parce que foofu kenn du fa dem ba diir ñu jël la génne la ni la mën ngaa ñibbi mhm. xam nga wuutewul ak euh, li Michel Foucault di wax surveiller et punir dafay mel ni genre prison moo tax approche bi xawoon na pose problème ñu dem ba jëmmi jamono ñoom ci seen bopp ñu jàpp approche bobu il faut ñu ñu xoolaat ko bon man ci sama wal bop liggéey naa ci ak le ministre de la santé ak équipe am mhm. mais il fallait que ñu changer euh, approche jën dem ci nit ñi lool mom mo indi euh, plateforme communale yi nga xamni mom lañu def mhm. pour légui commune bu nek nga xol naka ngay organiser pour ñom ci sen bop ñu waxal sen bop ba comprendre ko alors fi à Grand Yoff maire bi bi mako confier confier euh, dama ne li ñu mëna def rek moy woo ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci biir commune bi ci quartier yi ci gox ci gox goxaat yi ñu toog xool naka la ñuy liggéeyee ci la ñuy génnee le concept nawetaan Covid alors nawetaan Covid xam nga at mu jot day am compétition nawetaan. Mhm. léegi nag dañuy defar compétition nawetaan ci mbas bi maanaam ASC bu ne da ngaa war a liggéey ci sa gox ba kaadu fa am. Hmm. léegi suba lañ ko war a lancer suba moo nekk le 10.

yi nekk ci Sénégal. Mhm. ñi ngi xool ñoom it naka la ñuy defee loolu. bon démb am na rajo bu ma invité euh, ma ma ma intervenir ci c'était au téléphone avec euh, le docteur Aloïse Diouf. Mhm. alors bi ma paree euh, jot naa wax dëgg yàlla presque ci Sénégal fépp ak mais ñoo xam ni sax ñu Grand Yoff mais nee nañu dañu bëgg ñëw bokk ci compétition bi bon lii dina xaw a compliqué mais seen peut-être seen ñi ngi Dakar quoi. Mhm. mais nekkuñu commune Grand Yoff waaw beneen beneen commune la ñu bokk. man leen mhm. bon léegi nag il faut ñu xool ak seen commune. Mhm. naka la ñuy organiser loolu. mais lii ASC yi nekk ci commune bi la. 19 mhm. ASC la mais ñu bañ a xam parce que par exemple pour benn ASC gagné coupe. pour mu bañ a am cas ci il faut mu nekk zone am. mu nekk quartier léegi ASC bi dem xool chef de quartier ya fa ne. mu wax ak ñoom ne leen chef de quartier yéenay mag dañoo bëgg ngeen dugg ci kër yi wax ak paa yeeg maire yi parce que ñun dañoo bëgg a gagné te pour ñu pour ñu gagné coupe. il faut que ñëpp jàpp ci wax leen ak paa ak yi dem ci bàjjenu gox yi ni leen dem leen ci bitig yi dem leen ci salon de coiffure yi wax leen ak ñooñu euh, jël relais communautaire yi ni leen wax leen ak gars yi parce que yéen tàmm ngeen di wax ak nit ñi ci affaire santé yu demee noonu. donc wax imam yi euh, wax sëriñu daara yi loolu ñoom ñoo koy dox et ils ont quinze jours pour def sensibilisation intense maintenant ci biir quinze jours yooyu dina am ay derby Mhm. xam nga nawetaan yenn saa yi am ñaari équipe yoo xam ne bu ñu dajee day am di choc lay nekk mhm. dañuy jël ay journée yoo xam ne derby lay nekk entre ñaari équipe mhm. yoo xam ne dañ naan seen journée la yéen ñaar bu ko defee ñu xool pendant journée boobu ban équipe moo ci gën a mobiliser wu ci sensibilisation ci dugg ci kër yi ci wax ak nit ñi ba nga xam ne daal ñun bu 15 jours yi jeexee durée d'incubation normalement Grand Yoff kaa waruñu ko fee dégg donc loolu moom mooy nawetaan Covid mais loolu nag pour mu sotti comme ni ñu ko waxee

buñ ko buñ ci génnee pare na kenn dootu ko waxati fii mën nañu jàppale ñun ñun le 25 juin. Mhm. incha allah bu ñu yàlla jàppale. Covid mën na jóge ci Sénégal. ah macha allah. macha allah auditeurs yi nga xam ne ñu ngi saraan ak auditrices. Mhm. Euh, surtout partenaires Safina yi. ñu mhm. ñu ngi ci plateau bi di wax ni ubbi nañ suñu bon parce que nawetaan boobu damay wax ni lépp fii lay xewee. incha allah ubbi nañ suñu porte pare waa ak ASC bu ci nekk démb beeg ko fii ak suñuy plateau. kon ñu ngi ubbil buntu mboolem euh, partenaire yëpp ku ci bëgg a ñëw collaborer ak na taxawu ko jàppale ko. Mm-hmm. incha allah pare nañu ñun pour organiser ko su ko defee daa ñuy na la ñuy fexe ba euh, saa su nekk ñu jël benn plateau boo xam ne ñuy boole ñaari ay seen. Mm-hmm. ñu ñëw ak seen yaay ji euh, ñëpp ñu jàkkaarloo ak. ñu xool ku nekk wax sa stratégie ñu parce que tamit ni mu doon demee lay demee ci plateau bi. Mm-hmm. ko defee ñu déglu ay seen yi président supporter yi kenn ku nekk ana lan la liggéeyagul. fekk ci ci mais loolu maa ngi koy maa ngi koy gën a dëgëral. donc ñi nga xam ni ñooy sponsor yeeg yëpp nañu ñëw jàppale euh, Safina. ci liggéey boobu nañ leen jàppale bu baax ils vont mettre en place certainement des plateaux mhm. boo xam ni mooy accompagner nawetaan Covid mhm. mouvement populaire la mhm. ñëpp lay mobiliser au niveau de la commune je crois que ñi nga euh, comprendre nañ lolu dinañ ci gëna am visibilité bu fekkee ni dafa am produit yi ñuy proposer euh, nit ñi gën ko top donc voilà donc nañu ñëw liggéey ak Safina ci lolu inshallah taala ñu gis ni nawetaan Covid bobu dafa dafa dafa euh, dembu nawetaanu biñ ñu daan def dafa engagé la presque jeunes yi kese. waaw mais bi imam bi day mën a bokk ci biir parce que ño quartier yëpp a bëgg trophée. Mhm. trophée bi ak euh, dafa nekk liggéey boo nga xam ne bi ñu ko bàyyee léegi état mhm. wala ñu bàyyi ko ak euh, waa bi kese. Mhm. ak tey dañoo war a taxaw. pour fexe lii mu dégg moo moo moo moo jógee fii professeur. absolument te trophée bi boo tax trophée bi du nekk rek genre coupe boo xam ne dañ koy jox jeunes yi rek. mais dafay nekk trophée boo xam ni jàkka yi dinañ ci gis seen bopp. oui oui trophée la pour quartier boobu. Ah, <laughs> yow yow bu ko defee euh, vraiment imam yeeg ñëpp jàpp ne. trophée boo xam ne ñëpp ciy gis seen bopp la xam nga bu doon nawetaan la. dañuy joxe ay mayo ay euh, bal coupe symbolique. du doon mayo du doon mayo bal wala ay affaire yoo xam ni di loolu dina ci mhm. loo xam ne pour jeunes yi dinañ ci gis seen bopp. donc loobu extraordinaire lay doon ñëpp dinañ ci gis seen bopp pour quartier bi nga xam ne daal góorgóorlu nga ba kaa amul. Mhm. ña nekk ca quartier boobu yëpp dinañ gis seen bopp ci trophée incha allah moo xam jigéen la ñu moo xam góor la ñu moo xam mag la ñu moo xam ndaw la ñu. macha allah mbokk auditeurs yi déglu Safina FM 98 point 2 di ànd ak ñun aussi tam Safina TV bi macha allah ñu ngi leen di wax ni waa yéen a ngi seen émission taxawu askan wi euh, ci loolu euh, professeur ñu dellu ci gannaaw tuuti d'où est venue l'idée parce que li nga wax fii lu am solo la ñu def plateforme communale de riposte contre la Covid. waaw en fait l'idée c'est que man dama ci waxtaan ak parce que damay liggéey tamit ak le ministère de la santé loolu yàgg na war na ma deux mois ñu waxtaan ci après ma waxtaan ci ak Amadou kan bi nga xam ne moo jiite ONCAV. ok donc ñu ñu ñu waxtaan boo leen ko soxlaa saa leen ko soxlaa mën nañoo sax. incha allah parce ñu ngi ko gis ma ak say ñi taxaw. waaw il est très engagé. ok alors donc après ma waxtaan ci ak le maire ma jóg Euh, vraiment un jeune mu mu comprendre aussi daal di très bien donc on va on va y donc j'ai voilà ma waxtaan ci aussi ki nga xam moo jiite mairie ci Sénégal yëpp muy Aliou Sall. Mhm. waxtaan ci ak moom ñoom tamit euh, ils ko compris ils ont dit que c'est c'est sauf que démb dafa am xam nga ONCAV. Mhm. benn instant dañu am scission. waaw mhm. am beneen branche on tudd ONCAV. ONCAV alors ñoom it dañ ma interpellé démb ni ma.

ñu rassembler waat voilà ñi nga xamante ni que mën na nekk occasion ñu rassembler parce que li ñu gis mooy yenn président yi bu ñu demee ba seen code de popularité wàcc wàcc wàcc nit ñi bëri opposition dañuy créer guerre boo créer guerre sa population bi yëpp dañuy ñëw ci sa ginnaaw dañuy def say pour jàppale la mm-hmm. parce que dañuy bëgg a xeex benn indi pour mm-hmm. mm-hmm. dëgg la waaw loolu donc <laughs> bu ko defee gis nga xool euh, euh, Sénégal saa yu waree dem coupe du da ngay gis gaay yépp daal di bokk nekk benn. Mhm. jàppale équipe bi. Mhm. donc c' est des situations comme ça nga xam ne euh, li ci ëpp solo moom mooy ñëpp daal di dajaloo nekk benn say di wax mais parce que boo ko dee xool Grand Yoff comme ni ma ko waxee rek am na quand même bo comparé à beneen quartier comme bi ma tudd léegi. Mhm. xaw na tane di nga gis nit ñi ñi ngi ñenn ñenn ñi ci bëri ñi ngi takk seen masque. xaw na tane quand même mais par contre am na problème boo génnee fii yaa ngi gis xale yaa ngi football. Mm-hmm. te loolu du ñu rafetlu du lu ñu rafetlu ci jamono ji. xale yaa ngi fii moo tane demoo géejawaay xale yaa ngi football te <laughs> géejawaay <laughs> professeur demoo géejawaay boo demoon géejawaay nga xam ne tey jii waa gaa yi ak fii yaru nañ def naa ñi ngi dem plage ñi ngi football mais loolu yooyu tamit jeunes yi dama leen di lancer appel parce que xale yi bu leen affaire bi dalee mën na bañ a feeñ ci seen yaram mm-hmm. loolu la ñuy wax des porteurs asymptomatiques mm-hmm. c'est-à-dire que mën nga feebar ba wér te doo ko yëg yow jeune Mhm. mais le problème mooy boo ko joxee sa papa wala sa yaay ba nekk kër ga wala sa maam bu nekk kër ga da nga koy indil problème mhm. or Kocc Barma dafa ni mag mat naa bàyyi ci réew dëgg la gis nga loolu tey jii la am sens maanaam nañu fexe ba mag ñi bu ñu fi jógee mhm, incha allah mag mat na bàyyi ci réew nañ fi bàyyi mag ñi te te problème bi mooy mag ñi feebar ñëpp xale yi ñoom ñoo leen ko yóbbul de ah, booy booy ñooy dem football ñooy dem plage ñooy dem jëm jël ko nag indi ko ci biir kër gi wàllu ko paa bi wàllu ko mère bi wàllu ko euh, maam bu ko defee ñoom ñu feebar nekk ay cas grave moom la ñuy mhm. wax les cas grave mhm. bi démb rek ci ci guddi gi mhm. ñetti cas grave faatu nañ ci ci guddi gi ñetti cas grave waaw actuellement on est à cinquante deux décès mais waaw mais franchement nañu góorgóorlu ba mu yem foofu te ni ñu mën a góorgóorloo ba yem foofu mooy jeunes yi nañu muñ nañu muñ nañu nañu muñ quelques semaines yi ci kanam ñu góorgóorlu rek tënk suñu bopp ci benn discipline mën nañu fexe ba yàlla dimbali ñu parce que nag tamit yàlla dafa ni dangay ngay góorgóorlu moom mu jàppale la jafe na mais daf ñoo bind ci jafe-jafe la xad xalax naa insaana fii kabadin dama leen bind pour ngeen sonn donc nañu am coono rek ci instant bi après affaire bi jeex incha allah affaire bi jeex mais mënuñu nee ne feebar bi mu ngi fi nit ñi ngi wàllante ngeen di dem di football di dem plage di dem di dajaloo di dem et cetera cetera donc du loolu vraiment ñu moytu loolu te ba pare nag dem def suñu sensibilisation tënk suñu bopp dëkk Finlande euh, pas Nouvelle-Zélande. Mhm. ubi nañu wat sen championnat avec présence du public parce que zéro cas la ñom machallah zéro cas la mhm. Mhm. Sénégal mën na loolu ci 15 jours ñu jëm ci kanam mën nañu am zéro cas delluwaat ci li ñu nekkoon mais de bu afin delluwaat ci li ñu nekkoon ci lu baax lu ñu nekkoon. lu bon lu ñu doon def ñu ba parce que lool moom le leçon professeur euh, ñu doon ñu doon ñu gis Sénégal doon société bu xawa difficile sur le plan comportemental sur le plan éducationnel sur tous les plans. nga yaakaar ni loolu noonu bu ñu deful la communication qu'il faut est-ce que ñu aboutir à ça. déedéet il faut ñu communiquer il faut ñu communiquer bu baax a baax am réew ñeent yi bu ñu fa dajee mu am problème. Euh, bi njëkk moom mooy boroom xam-xam bu maanduwul bu nekkee ci penc day indi problème. boroom xam-xam bu maanduwul mooy koo xam ni bu waxee dañuy yaakaar ni xam-xam lay waxee fekk problème bu boppam lay régler. loolu baaxul ci réew. Mhm. ki ci topp mooy boroom alal bu kàccoor. Mhm. kooku yàq daf koy yomb. gis nga bu ma amee alal ba mm-hmm. pare kàccoor mm-hmm. ma maa damay maa fi gën a mën a yàq mm-hmm. damay ñëw fekk ku baax ma yàqu ki ci topp mooy ndaw bu amul kilifa loolu problème la donc il faut que ndaw yi gën di déglu kilifa yi bi ci topp nag mooy mag bu taay yi mag bu taay waaw mag bu dem ba ni man sama yoon nekkatu ci bu découragé daal bu découragé mag nag warul découragé donc ñi nga xam ne dañoo féete mag bu ñu mus a découragé nañu continuer di wax rek mooy communication bi ngay wax mm-hmm. nañu continuer di communiquer nañu continuer bu ñu découragé parce que mag du loolu mooy cëram cëram mooy dafay war di sonn nay wax rek nay wax rek parce que fàttali di fàttaliwaat di fàttaliwaat alxuraan daf ñu koo sant mm-hmm. fa zakri na fa xaati zikra nañuy fàttali rek nañuy wax rek nañuy fàttalante ci dëgg ci lu baax ci yiw mm-hmm. loolu dina nekk loo xam ni mën na nekk xewal pour ñun ñëpp donc mag ñi bu ñu tàyyi communication du doy communication du doy donc nañuy gën a jege di wax di fàttali euh, te am yaakaar ci ni ci bis yi ñuy ñëw mbir bi mën na changer parce que bon da ngay gis ndaw yi ñuy football euh, jàppal ni rek peut-être dañoo comprendre benn philosophe bu ñuy wax Platon dafa ni nul n'est méchant volontairement. Mhm. c'est-à-dire ki nga xam ni dafay def loo xam ni jaaduwul c'est parce que dafa comprendre mhm. tayu ko mais bu com bu demee ba comprendre rek dina xa ne fa mu doon teg tànkam foofu. Mhm. ñun ñii ñëpp dal ah. am na loo doon def ba ngay gën a nekk xale. Mhm. bi nga demee ba gën a nekk mag comprendre di nga ni ah ndeke ne man maa ngi doon def erreur quoi. maa ngi doon tooñ maa ngi doon et cetera et noonu la àdduna moom moo bindoo noonu. Mhm. mais ñuy continuer ñi nga xam ne ñoo gën a féete mag euh, di gën a laaye biir ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ndaw. Mhm. mais ñi nga féete ñi féete ndaw tamit di gën a góorgóorlu ci kilifteef. dafa am solo. Euh, euh, Laay Camara ou Camara Laay bu muy bind l'enfant noir dafay wax ne bi may nekk gune sama ndey ak sama baay dam ma doon wax yenn heures yi bul nekk ci biti mhm. parce que boo nekkee ci biti jinne mën na laa sadd mu ni ndeke ne bi ma màggee laa comprendre ni heure yooyu heure añ la woon ak heure reer mu ni dañ doon fexe ma ñëw ci kër gi parce que añ ak reer dafa am jikko yi ñu doon def ci man mhm. dañuy taaj ndab li ci suuf bu ñu taajee ndab li ci suuf ñu ni ma ndab li na ko jàpp ak sa loxo càmmoñ mhm. ndab li warul yëngatu gis nga ndab li mooy penc mi ñu bokk penc mi warul yëngatu ku ne da koo war a téye ak sa loxo càmmoñ mhm. mu ni sama loxo ndeyjoor rek laa war a lekke te sama loxo ndeyjoor boobu sama kanam dong laa war a yem waruma lekk kanamu jàmbur mhm. dama animé conférence université Dakar ci thème lu tax dawalkatu Sénégal du ñu respecté code de la route ma ne mhm. dañoo lekkatul ca ndab maanaam ki nga xam ni ci dañ ko ne ci sa kanam dong ngay yem doo yóotu kanamu jàmbur bu demee ba màgg di dawal mën nañu am yaakaar ni kanamam <laughs> waaw donc sa kanam nga war a yem ndawal nga ci diggu ndab la mag ñi dong ñoo am droit laal ko mais mag ñi am nañu doy bu toll ni ñu daggal xale bu ci ne la nga soxla tegal la ci sa kanam. Mm-hmm. ndawal loolu mooy la bien commun. Mm-hmm. mooy li nga xam ne moom la ñu bokk. mag ñi mooy les dirigeants mais bien commun boobu dirigeants yi amuñu droit jël ko teg ko ci seen kanam foofu lañ koy bàyyi ku ci nekk la nga soxla ñu daggal la tegal la ci sa kanam. Mm-hmm. ñun la ñam li waroo koo tuur. ñëpp xam ne boo tuuree ñam ñi moom mën nañ laa dóor dóor yu métti mhm. Mhm. mais parce que yow yàlla baaxee na la nga jot ci ñam jooju am na ki nga xam ne jotu ci donc war ngaa ormal ñam li waroo koo tuur mhm. waroo lekk di wax waroo lekk gis nga mu ni bi ma demee ba màgg laa xam ne ndeke ne ndab jooju rek ay ma doon lu ne ñi ngi ko doon def ci man jikko yooyu ñi ngi ko doon def ci man léegi nag façon yar boobu moom moo xaw a tawat a ça tend à disparaître moom moo tax Oustaz Aliou Sall di wax ni gone yu bëri seen ndey génn na àdduna ba ñu daaxee dégguma seen <laughs> bañ Sall Sall naanaan la nee na gone yu bari seen ndey génn àdduna bañ dàkkee mindaan ba waa kay mhm. parce que finalement mindaan bi mooy nekk seen ndey dëgg la léegi bu ñu ko dàqee parce que temps bi ñuy passé mindaan parce que yaay ji day dem yaay ji day dem papa day xëy yaay day xëy yaay day xëy léegi mindaan la ci nekkal léegi bu ñu ko dàqee kon seen amatuñu yaay seen yaay dee na mhm. léegi lan mooy yar finalement bu fekkee ne ndey ak baay temps bi amatuñ ko euh, mbindaan ba nekkatu fa léegi kan mooy yar xale télévision moo koy yar internet moom moo koy yar euh, téléphone portable moo yar mais est-ce que loolu yar na loolu li muy indi ak wéetaange la euh, sëñ Moussa Ka dafay wax ci xarnu bi ne kër yi léegi dañoo wéet Mariama Ba bind ci une si longue lettre que les parents d'aujourd'hui s'occupent beaucoup plus de l'instruction que de l'éducation des enfants tout à fait instruction et non éducation na xale yi jàng moo tax nag dama wax quelque part ne parent yu ci bëri dañuy xont waaye yaruñu. ñu ngi dundal parents yu bëri dañuy xont. mais yaruñu waaw. Mhm. xont ak yar bokkul. déedéet xontu mala lañ koy def. Mhm. Mhm. da koy jox muy lekk rek. ba mu regg ba mu regg. da ngay gis parent yoo xam ne dañuy jox seen doom oto. jox leen billet ñuy dem di voyager di dem fu ne. jox leen argent de poche boo xam ne. Euh, ñun ñii ñëpp ñu boole woon suñu salaire. Euh, <laughs> argent de poche boobu jegewu jox leen loolu yëpp mais ñu ci ñoom yenn jikko yi. donc ñooñu ñu ngi leen di xont. moo tax dérapage bi di bari. moo tax muy am ay dérapage. moo tax muy am ay dérapage yar nag mooy nga waajal nit ki ba nga xam ne bu màggee du doon kuy rus waaye day doon kuy jomb. def ci moom ay valeur. rus ak jomb bokkul. déedéet rus ak jomb bokkul. ki nga xont mooy rus. bu nit ñi bu nit ñi bu fa nit ñi téwé rek mu xawa normal. Mhm. jomb nak ki nga yar mo koy def. jomb ak rus. waaw jomb moy ki nga xamni def nga ci mom ay jikko ba nga xamni ni. Mhm. moom ci bopam mu wét ak mu baña a amna yi nga xamni duko def. Lolo waral euh, ci aventure ambigu, Samba Diallo bi mu joggé chez le maître Dialobé dem France. ba mu ba mu fa sek euh limu ñëk def moy kër ga mu dem dañ dañ ko inviter reer jox ko vin. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ko joxee verre bi mu ni lii maître Thierno dama koy tere mënu ma koo jël. te pourtant maître Thierno ne ko fa ma nga ma nga dans le peuple bi au Fouta. moom ma nga def ci moom ma nga fële France mais la mu def ci moom moo ko topp fu mu ñëw. Mm-hmm. léegi nag loolu dafa laaj vraiment aussi kër yi. ñu waaw ñu liggéeyaat ci. école yi tamit ñu liggéeyaat ci. parce que école da daan am assistant sociale prof ba wala maître ba daawul nekk kuy jàngale rek mais dafa nekk koo xam ne tamit dafa la maître yu njëkk yi. Mm-hmm. dañ man ñun suñu ay maître ñun mm-hmm. samedi ak dimanche sax dañ daan jékki-jékki rek ñëw ci kër yi mm-hmm. ñëw xool ba xam lan ngay def donc te da nga leen daan ragal comme voilà comme parce possible. que comme c'est pas possible légui nak suñu jangale kat mom ñom ñom ñom ñoy bokk mais voilà légui nanam do ataya bu ni nak légui mom xam xam rek la gérer gérer wul jikko bi yow yaangi ñew classe yoré sa cigarette di Mm-hmm. wala yaa ngi ñëw classe am yenn façon melokaan yoo mel waaw loolu nag am na royuwaay yooyu jox gone yoo xam ne du doon royuwaay bi gën mm-hmm. am na ay xale yu ma mës a invité euh, benn école primaire mm-hmm. benn xale buy def classe CE2 mu ne ma professeur dafa am lu ma lay laaj ma ne looy ma ne ko looy laaj mu ne euh, suñu maître bi ñu yore volontaire la temps volontaire dafa ñuy wax ne na ngeen jub na ngeen yiw dee leen wax dëgg bu leen jël alal jàmbur mu ne mais li ma lay laaj mooy est-ce que naxuñu parce que man moom mu ni dafa constaté ni ñuy def contraire loolu ñoom ñoo tekki mu ni maître bi sax xëy na loolu mu gëm moo tax ngoon gu jot muy daw ci ginnaaw car bi pour ñibbi mu ni ma xam nga Zidane ma ni ko waaw mu ni ma Zidane ba muy jógee Juventus de Turin di dem Real Madrid pour contrat ba mu jëkk a signé deux ans la mhm. lañ ko fay ci deux ans yi moom maître am boobu war naa liggéey mille huit cent trente trois pour am li Zidane am ci deux ans mais loolu mooy léegi ñun yan modèle la ñuy jox suñuy suñuy ndaw <laughs> yan royuwaay lañ leen di jox ay ak ndaw tamit boo bëggee mu nekk ndaw bu sel ndaw boo waajal dafay nekk ndaw boo xam tamit da koy jox ay royuwaay yu baax mm-hmm. da nga koy jox royuwaay yu baax te royuwaay yu baax nag am na ci réew mi mm-hmm. am na ci réew mi de ba jama waxuma la royuwaay yoo xam ne ñi fi ñi ngi fi nekkoon démb ak bërki démb mm-hmm. am na fi mais tey jii ñuy dund nii am na ci réew mi ñoo xam ne ay royuwaay yu baax lañu euh, am problème am nañu problème mu système éducation euh, parce que dafa nekk système boo xam ni tubaab bi moo ko rëddoon bàyyi ko fi. Mhm. tey jii fi mu toll nii ñu ngi jàngale ci français. Mhm. ba pare di jàngale français bokkul de ñu ngi jàngale francais ñu ngi jàngale ci français. muy ñaar <laughs> muy ñaar. Mhm. maanaam da ngay jàng français ba pare leneen loo jàng ci français nga koy jàngee. yaa ngi dégg. donc loolu lu muy indi mooy suñu làkk yi nga xam ni moom mooy làkk yi ñu nàmp dañ ci am ay jafe-jafe. te gis nga làkk tamit dafa am lu mu làkk. làkk bi làkk dafa am lu mu làkk li mu làkk mooy aada cosaan histoire et léegi yow euh, buñ la nee garab lan lay tekki ci français. garab lu muy tekki arbre. Mhm. garab lu mu mën a tekki leneen ci français médicament. Mhm. waaw donc ça signifie que ci wolof garab mooy garab. Mhm. maanaam arbre mooy médicament. moo tax même mot bi mooy signifie garab mooy signifie médicament mhm. mais looloo lay wan ni dañuy utiliser garab pour faju mhm. yaa ngi dégg <laughs> de garab maanaam arbre bi dañ koy utiliser pour faju xob yi ngay utiliser pour faj sa bopp mhm. reen yeeg xànc beeg yu demee noonu mais looloo tax nag garab ci suñu aada dafa nekk loo xam ni dañ koy protéger comme da koy utiliser mu lay faj da nga koy protéger da nga ko war a sàmm looloo waral garab kenn du ko dagg nu mu la neexee. Mhm. dañ koo war di toppatoo. léegi nag bi ñu demee ba fàtte loolu dañuy dem léegi ci tubaab bi ñuy jàngal protection de l'environnement. te ñun amoon ko fi te ñun amoon nañ ko fi démb amoon nañ ko xamoon nañ te mënoon nañ nañ ko léegi mu indi ñu nag ay ñu fay dem de comment dépenser ay millions. tubaab bi tubaab bi di ñu jàngal protection de l'environnement te ñun ñoo leen ko war a jàngal. Mhm. est-ce que aussi tam foofu professeur du ñun ñoo xeeb suñu bopp. Emancipate yourselves from mental slavery none body but ourselves can free our mind. Bob Marley mooy woy loolu. Mm-hmm. nee na na esclavage bi gën a garaaw mooy esclavage mental. mooy nga dem ba xeeb sa bopp. Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum. ne nee na tumranke mi ngi tàmbalee ba nga xeebee sa bopp. dëgg la na loolu mooy tumranke mm-hmm. ba nga xeebee sa bopp boobu nga tàmbalee tumranke euh, Joseph Kizerbo di wax la naat des autres basangu keneen. Mm-hmm. nee gis nga bis boo bàyyee sa basang nga dem ci basangu jàmbur mhm. nee na xëy na di nga toog mais doo toog place ba gën parce que place ba gën moom moo ciy toog mhm. bu ko defee nee na nga gedd nag ni yaa ngi jëliwaat sa basang fekk ne am na ku ak moom nga tumranke fekk fekk borom fekk ñun dañoo xeeb suñu ànd mhm. dañoo am aada ak cosaan bu riche euh, ay mag yoo xam ni liggéey nañ fi lu am solo bàyyi ko fi mais nag ñun ñoo ko bàyyi dem topp moom nga doon wax léegi système éducatif boo xam ni daf ñoo dugal ci leneen. Mhm. ñu ñuy jàngal leneen. Mhm. du ñu buure nag teg ci. voilà loo xam ni je ne pense pas que mu ëpp solo. li ñu am ñun ñun ñun li ñu am. buñ lay jàngal ñu ngi lay jàngal histoire Napoléon Bonaparte ay Nabucodonosor ay histoire ñooñu. des choses qui ne nous servent à rien franchement léegi nag nga ñëw fii histoire euh, Cheikh Omar Foutiyou Tall. Mhm. xale yu bëri boo leen laajee ñuy xaw a laaj seen bopp. Euh, boo nee Kocc Barma boo nee Nambal Gossas. Euh, boo euh, bonne mm-hmm. alors que finish complexe pour en parler ben alors que si indi Socrate Victor Hugo ils sont fiers d'exhiber ça donc ñun côté ñoo wara teggat suñu bop euh, professeur. tu as raison tu as raison dañu suñu système éducatif dañ suñu système éducatif dañ gis suñu réconcilier ak suñu gis nga li wax s'enraciner d'abord affaire ouverture ouverture da war a nekk sa bopp Senghor dafa ni euh, Soukeyna ak Isabelle dañoo war a ànd mhm. waaye nag da ngay tàmbali ci Soukeyna ba pare soog a dem ci Isabelle tookoor waal yi ak Taylor de Chardin dañu war a ànd mais da nga war a tàmbali ci tookoor waal yi nijaay waal ba pare soog a dem ci Taylor de Chardin mais ñun nag dañoo juutal affaire yi mhm. da ngay nekk Isabelle ba pare soog a dem ba nekk kële lu muy indi mooy euh, koo ci gis muy wax ma ngay jéem a rouler ay air pour wane ni tubaab la euh, ñenn ñi ngay xeesal mhm. ñu baal ma mais xeesal bi du jigéen ñi rek ah. non boobu da nga thème la à part dañ koy euh, jël ñu dox ci incha allah góor ñi tamit léegi ñu dañuy waaw mhm. ngay gis yenn kii di dem ay appartement loolu loolu du ñun ay xale yu ndaw di di di dem ci ay appartement loué ay oto di mais loolu c'est pas nous da nga koy gis yeneen dëkk yi mais mhm. loolu du ñun xam nga donc loolu laa lay wax rek ne la loolu yëpp système éducateur liñ ci gis defe naa ni ñoom ñëpp ay xale yu jàng lañu. ñëpp c'est des lycéens. donc wan moom moo lay wan ni suñu système éducatif bi eh, war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax daara yi ñu ñu toppatoo ko bu baax a baax a baax dama doon wax ci ci colloque bi ñu organisé woon King Fahd Palace. ak mhm. ak famille omarienne. Mhm. ma ne dañoo néewal doole daara benn mag bu baax bu nekk Medina Gounass dafa ne. Mhm. bu fekkee ne da nga nekk wéyjur boo xam xam nga dara euh, euh, am nga dara mais xamoo dara. Mhm. donc da nga nekk waajur boo xam ni am nga dara waaye xamoo dara. Mhm. nga jël sa doom bi nga xam ni xamul dara amul dara. Mhm. dénk ko sëriñ daara boo xam ni xam na dara waaye amul dara. te yow jàppale woo ko ci dara bu sa doom xamul dara bul wax dara. dëgg la ah, loolu wax la <laughs> macha allah. lu wér. c'est ça c'est-à-dire que en fait dañu ne lii la gëm mais lañ ko war a toppatoowee toppatoo wuñ ko noonu. Mhm. da ngay jël sa doom jox ko sëriñ daara. te sax boo koy fay boo bu nee la 5000 nga ne non mais kii dafa bëggee. waaw 3000 noonu. ba pare ngay dem ci benn jardin d'enfant prêt à payer 150 000 francs par mois man xam naa fii Dakar benn jardin d'enfant boo xam ni 150 000 francs ngay fay par weer. Mhm. moom moo tax mu ni bu nekkee da nga nekk wéyjur boo xam ni am nga dara te jël sa doom boo xam ni amul dara xamul dara dénk ko sëriñ daara boo xam ni xam na dara amul dara te jàppale woo ko ci dara bu sa doom xamul dara bul wax dara. Mhm. te euh, professeur dañuy xuus ba tey dem ci loolu nga gis ni parent bi nga xamante ne dafa jël doomam yóbbu ko comme ni nga ko waxee fayal ko une très nga gis ko ki nga xamante ne dafa jël doomam yóbbu ko daara buy jàngi kii dañ koy solal yére yu baax solo ko dàll yu baax mu oddoo saakam defal ko ci goûter ki nga xamante ne dafay euh, daara ja lay jàngi jee du sol yére bu baax yére dañ ko submune ci yére yi nga solon nga dem sol sa yére yi ngay demee dara fekk ne du dal bu baax du yére bu baax du kala bu baax mu dem eh, demee ko école loolu aussi est ce que du ñun ñoo ñëk a dara absolument loolu moy wax ji mo maanaam ciowli moy euh ndax ñun xam nañu li ñu bëgg lan la voilà euh ndax ñun xam nañu yoon ba ñu bëgg jaar ban la parce que li woor moy euh té loolu pays asiatique yu won nañu ko mhm. ni bu fekké da nga bëgg développer fi nga wara gëna insister moy yar mhm. ci yar ci ay jikko mhm. gis nga même même pandémie bi bii ñuy wax mbas bi. Mhm. gis nañu ci réew yooyu ci la gën a gaaw a jógee. Mhm. parce que dañoo am yar bu ñu waxee ni def leen nii ñëpp dañ ciy tënku. ñëpp mhm. spécialiste yëpp wax nañ ni dëkk yi gën a discipliné ñoo ci gën a gaaw a génn. léegi nag dëkk yi nga xam ne ñoo gën a indiscipliné manaam yar amu fa dëkk yooyu fa la affaire bi gën a méttee parce que ku nekk loo neex ngay def. ku nekk loo neex ngay def donc yar dafa nekk loo xam ne am na solo mais ñun tamit il faut ñu xam lu ñu bëgg lan la. maanaam xam li ñu bëgg lan la mooy ñi nga xam ni dañuy liggéey ci yar euh, ñi nga xam ni dañuy liggéey ci defar jikkoy doomu aadama yi ñooñu dañ leen a war a jox cër bu am solo dañ leen a war a wekk mooy sëriñ daara yi mooy jàngalekat yi de façon générale mm-hmm. mooy jàngalekat yi de façon générale ñooñu euh, dañ leen war a jox cër bu am solo ci ab ci ci ci ab pénc mais boo ko dee xool malheureusement euh, lu metti la ñuy dund moom moo lay wan ni ñun finalement Euh, dafa mel ni euh, suñu gëm dafa tënku ci julli ak woor mhm. alors que diine dafa nekk loo xam ni mais du du léegi weer du jaay da nga koy dund à tout moment mhm. da nga koy dund fa ngay liggéeyee euh, da nga koy dund ci marché ba da nga koy dund ci mbedd mi da nga koy dund fépp capital spirituel bi dafa nekk loo xam ni daf la war a gunge foo ti dem dafay ànd ak yow tey jii dañuy wax sax management spirituel maanaam nga jël benn entreprise nga bëgg nit ñi euh, nekk ñoo xam ni dañoo sawar ci liggéey nga ne naka laay jaaree ci seen gëm-gëm. Mm-hmm. ba nga xam ne nit ñi dañuy gën a sawar ci liggéey bi parce que amul benn gëm-gëm boo xam ne dafa lay wax tayalal. daf lay ñëpp dañu lay wax ni la na nga liggéey na gëm. Mm-hmm. waa léegi naka la ñu mën a jaaree ci loolu ba nit ñi gën a sawar. Mm-hmm. donc loolu yëpp pour wan la ni ñun dañu am histoire vraiment dañu am capital culturel quoi. bu ñu la nee Cheikh Omar Foutiyou ñoo xam ni gëmuñu dara. mu jéem leen a indi ci diine. Mhm. ñenn ñi nga xam ne dañoo taxaw ni loolu duñ ko def mu taxaw la. jàkkaarloog ñoom. Mhm. ba jëlee leen ci loolu te ba liggéey fi liggéey bu am solo ci réew mi. Mhm. mais loolu daf lay wan ni effectivement am na ci ñoo xam ni am na lu ñu tàmbale. liggéey ci liggéey bu am solo li ci des moom mooy yeggale ñoom liñ doon def. continuité continuité mais malheureusement euh, ñun dañu mel ni au lieu que ñu yeggale ko dañu dem nekk ci leneen. nekk ci ay affaire tappale nekk ci loo xam ni amul benn njëriñ euh, mu indil ñu nag jafe-jafe yi nga xam ne yenn saay moom la ñuy dund mm-hmm. professeur est-ce que yaakaaroon ni kon fi ñu toll si jamono au lieu que ñu doon xaar tey ñu jiite ñu ñoo war ñu ñoo leen a soññ parce que yaa ngi koy wax léegi ci caada ak cosaan euh, tey soo ko jëlee ministère euh, soo ko soo ko xoolee ministère bi ñu ko dénk en général dañuy conseil dañuy yaakaar ni soo ko waxee ministère de la culture dañuy yaakaar ni tëj ñi fecckat yi la wala artistes yi na rek ñoom rek lañ lañ sóoraale ci ci cadre. li nga wax moom moo am effectivement li nga wax nii moom moo am c'est-à-dire que bu fii culture en Afrique malheureusement suñu politique culturelle. Mhm. dafa dem essentiellement ci fecc ak woy ak affaire yooyu. malheureusement. bon loolu suñu aada ak cosaan la. Mhm. mais culture dafa gën a diis loolu. Mhm. dafa gën a sori loolu. waaw dafa gën a sori loolu dafa capital culturel dafa nekk ay diine ay gëm-gëm. histoire la culture des valeurs. les valeurs et cetera loolu yëpp dañ ci war a liggéey. dañ ci war liggéey nga dem ci gox goxaat yi di ñu fa fekk ay valeur dem naa benn dëkk fële ci sud euh, du Sénégal foofu dëkk boobu bu bu benn xale defee benn erreur bu defee erreur moromam yëpp ñi bokk ci même génération ñoom ñëpp la ñuy la ñuy sanctionné ñëpp la ñuy sanctionné waaw du doon moom kese ñi moo bokkal génération yëpp la ñuy sanctionné gëm gëmloo ne leen yéen seen génération moo def lii ñoom euh, du faute personnelle bi. ko mhm. léegi bu ko defee yow boo naree def erreur. ñeneen ñëpp ñoo la xool bu ñu fi indil problème bu ñu fi problème. waaw mhm. parce que parce que après du doon yow kese ñun ñëpp lay doon. ñëpp lay doon effectivement. lolu façon façon façon yar la valeur yoy lañu wara façon yar ta daf leen indil esprit de groupe bi. dañ koy cultiver très bien. légui yoy lañu wara jël xol naka lañ koy exploiter mu nekk ñun suñu agenda culturel. Mhm. mais malheureusement bo dee xol ci côté bobu Euh, liggéey bi manqué na bëri na ci loo xam ni boo duggee ci biir ci biir Sénégal ci société yi comme dama doon wax ni dafa bëri ay société mm-hmm. ah, danga fa fekk yoo xam ni mais yu kéemaan ay ay valeur yu baax yu am solo mm-hmm. yoo xam ni boo moytul dinañ ko perte ñeneen ñi nag ñëw jël ko dama lay jox exemple kal rek mm-hmm. waaw kal ki kii Njaay la sant kii Jóob la nekk sant mu mu indi ak njàmm jàmmoo ci suñu biir mais exploité wuñ ko parce que bu ñu deful nànk génération yi ci suuf di ñëw ko xam léegi bu ñu ko xamul pertement bu mag lay doon pour suñu société. léegi mais dafa am njariñ. Mhm. dafa am kal ak. day wàññi tension yu bari. day wàññi tension. Mhm. kal ak gàmmu. kal mooy sant yi. Mhm. gàmmu mooy xeet yi. maanaam ñu ni séeréer ak joolaa. gis nga euh, Casamance lu mu tàngoon tàng tàng tàng séeréer joolaa du ko laal. waaw mucc na c'est moo tax administration territoriale comprendre ñu loolu dañ doon jël gouverneur yeeg préfet yi ay séeréer lañ doon doon def foofu ba léegi mhm. sax d'ailleurs parce que ñoom kenn du leen laal mhm. mais joolaa tamit ak lu situation tàng tàng tàng séeréer du ko laal loolu dafa am solo nga xool séeréer ak alpulaar ak tukulóor mhm. yooyu mooy gàmmu kal tamit di man am na ñaari étudiants américains yu ma encadré ñuy liggéey ci affaire kal waaw bi ma leen laajee mais yéen lu tax ngeen di ngeen jël thème boobu di ci di ci di ci liggéey ay américain ay États-Unis lañ jógee lu tax ngeen ciy liggéey ñu ni parce que dañu bëgg a xool ñun bu ñu ñibbee naka lañ koy defaree foofu ci suñu dëkk est que ma mais ñun ndeysaan ñu ko am xamuñu ko xamuñu valeur bi ñu am <laughs> ñun ñu ko sàgganee ñeneen ñu jóge ci ci ngi ñëw bëgg ko pour installer ko loolu laa lay wax nag mi loolu culture aada ak cosaan boobu ngay wax mhm. ñoom moo ko waroon a jël liggéey ko fexe ba xale yi xam ko mais defuñu ko léegi nag comme xale yi xamuñu ko defuñu ko mais ñeneen ñëw jël ko yóbbu mhm. moom laa doon wax léegi yow boo sàgganee sa basang mais keneen ñëw jël ko yóbbu bu ko defee yow nga tumranke parce que dootoo amati basang professeur ba tey foofu est ce que noonu noonu suñu ñu amee problème ci euh, njàngale mhm. amee ko problème ci yooyu la ñu amee problème ci suñu ci suñu média bi parce que souvent yu mel noonu yaa ngi ko wax léegi ci ci ci internet bi ci xale yi tey gis ñu papa gis ñu yaay ñi ngi seen kër télévision lañ gis ak internet est-ce que tu la ñu waroon a profité pour delloo siwaat ndaw ñi mais en général suñu xoolee li ëpp lu ñuy génne eh, aada wala cosaanu keneen la wala culture beneen réew mu bokk tamit même suñu suñu suñu arti eh, suñu artiste yi mm-hmm. film yi ñuy joué sax même olof lañ koy wax mais duñ jël réalité wu réew mi dañ jël réalité wu yeneen réew euh, li nga wax ni dafa am effectivement parce que man mën naa ci wax parce que ci CNRA la bokk ok euh, mais mais mais effectivement suñu média yi fonction éducative am na nag ñu ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax. Mhm. yenn saa aussi ñu am ay rubriques yoo xam ne effectivement c' est des rubriques éducation culture delluwaat ci aada ak cosaan yenn saay nga seetaan ci yenn télévision yoo xam ni dañ lay defal émission par exemple ni démb. Mhm. dem benn dëkk wane seen aada ak seen cosaan nañ daan mhm. dundee yooyu rafet la yenn saa nga gis. Euh, yenn émission yoo xam ni causerie lay nekk mais dañuy delluwaat ci ci ay valeurs yu baax ay affaire yu demee noonu. mais malheureusement li nga wax daf ci am parti bo xamni daf ñuy xaw a bo mhm. dama lay jox rek exemple téléfilm yi mhm. vraiment parce que ben jamono dañu ni ñun téléfilm yi consommer consommé jogé wul fi mhm. Brésil lay jogé wala Mexique moy telenovelas yooyu ñu ni légui nak nak nañu défar suñu téléfilm bop nga xamni euh, daf ñuy id wan suñu identité mais malheureusement suñu téléfilm yu bop yu bari yi ñu jël man je ne pense pas que muy refléter suñu identité franchement yenn saa nga gis ki yoo xam ne dellu sax peut-être. jëli sax waaw jëli yële sax. <laughs> Euh, der gi rek mo leen différencier ak leneen. Ah, mais même comportement yi même même euh, euh, entre guillemets valeur yenn valeur ñom yu ñu gëm. mom lañuy indi indiwaat dañu ko inculquer waat. même dañ lay wax olof lañuy wax mais ñi koy gis dégguñu olof. merci la ñuy ëpp luñuy ñuy ouais malheureusement le yenn saa nga gis ci lolu donc c'est vrai il faut peut-être ñu inviter ñep xam ne euh, média dafa am fonction d'éducation bu am solo surtout ci contexte bi ñu nekk mhm. euh, ni nga ko waxee dëgg la nga xam ni famille yi euh, ñu ci bëri amatuñu jot boobu toog di gunge xale yi dama am benn xarit boo xam ni ministre la Burkina Faso mhm. nee na ma moom ci boppam mu ni bi ñu ma falee ministre benn riche commercant bu nekk Burkina Faso moo ko ne na nga def attention mu ni ko lu tax mu ni ko parce que man dama am alal mhm. te ñëpp xam nañ ko milliardaire la mais alal jooju ma am tax na ba taluma sama njaboot. donc talu leen parce que de mi ngi daw rek. nee na benn jour doomam ju doomam ji nga xam ne moo ci gën a ndaw moo ko ni mais yow papa waxtu wu nekk ñaata ngay am ci xaalis papa ji ni ko daal bu tuutee ba tuuti waxtu bu nekk dinaa ci am soixante mille francs donc man bu ma pertee waxtu rek lu tuutee bu néewee ba néew perte na soixante mille xale bi ni ko argent de poche bi nga ma joxoon. weer bee passé am na lu ma ci jël am na lu ci des dese naa quarante mille dama bëggoon nga lebal ma vingt mille muy soixante mille ma fay la ko nga toog ak man benn waxtu. allahu akbar. leçon de loolu dafa doy waar. dafa doy waaw ma fay la yow soixante mille. donc pour wax la ne famille yi quelque part xaw na ñu fàtte waajur yenn saa tamit ñu topp.

que il faut restructurer. Euh, les médias sociaux. Il y a beaucoup de dérives de parce que clavier euh, un compte. un faux compte donc euh, surtout que riche.

am benn waay bu ne dañoo sàcc taxi am mm-hmm. am ku ko woo téléphone ne ko euh, sa euh, dañ sa taxi dafa réer mu ne ko waaw mu ne ko mbaa waxoo ko police mu ne noonu waxuma ko police mu ne waaw parce que ñi ko jël samay booy la ñu quoi léegi nee nañu euh, boo leen joxee trente mille daal man bon dinaa mën a fexe nga jotaat ci taxi sàcc sa taxi ba pare waaw nga war a joxe trente mille pour ñu joxaat la sa taxi te bu ko wax police waa ji enregistré conversation bi dem yóbbu ko rajo ñu teg ko Mhm. bo mais bi ma ko dégloo ma ni mais ñun yu mel nii bi ñuy nekk xale daan nañ ko def mais attention mooy bu mësaan am taajaboon mhm. ah. bu ñu duggee ci kër di taajaboon bu ñu gisee euh, dañ koy jël yóbbu mhm. mais bu ñu ko jëlee yóbbu la dañ koy indi da nga koy kër gi léegi ñu jox la vingt cinq franc wala cinquante franc nga delloo leen ok jeu bi moom moo nekkoon nga pousser nit à la vigilance ok ba ba balaa kenn ñu nga ranger nga ranger lépp lépp loo bàyyi muy traîner ça veut dire que vous avez vous avez été mhm. lépp ngeen war a ranger lépp lu ci gis rek dañ koy jël mais bu ko jëlee tamit a obligation de revenir ñëw delloo la ñëw delloo ni ñoo ko fi jëloon ngi nii léegi nag juróomi dërëm la ñuy jox ñu delloo la sa sa secours wala ñu jox mhm. tamit ñu koy fàtte xam nga ndayale dañ daan gis jigéen boo xam ne dafay war a sëy xam nga sëy dafa ko mhm. xale la musul xam yu mel noonu mhm. ñu tànn ci dëkk bi jeeg bi nga xam ni ma nga fa sëykat la musul fay ñu ne ko ndeyalal nañ la ko pour mu nekk modèle am ak conseiller am mhm. <laughs> ok loolu moo nekkoon concept ci biir histoire ndeyale ñun ñu maa ñu ko yàq. non non léegi yàq yéen ak ñoom seen i yéen a ko yàq. yéen moo nekkoon histoire ndey c'est-à-dire ki ñu lay ndey parce que kooku après moom rek ngay waxal. Mhm. moom moo lay nga mën a xam ni kii modèle la moom musul am. affaire amul sëy bu amul problème. Mhm. mais mais muñ na ko fa. muñ na ko gere na ko ci sutura. Mhm. léegi kooku ñun dayale la ko. pour mu nekk sa conseiller. Oh. de la même chose ak bàyyale yow mi nga xam ni yaa ngi takk yaa ngi takk soxna ku góor ki mm-hmm. ñu xool kenn ki nga xam ni góor la mi ngi denc soxna mais ak yërmande euh, ak responsabilité ak jub ak yiw mm-hmm. ñu jël ko bàyyale la ko mm-hmm. kooku moom mooy nekk sa modèle yow tamit nga xam ne saa yu soxna si saa yu amee problème bu ñëwee bu waxee ak yow daf lay wax moom en fait yow sa doo xalaat parce que kii modèle la mais malheureusement mom la lay wax rek dafa am yoo xam Les euh, oh, oh, médias yi bari na luñu ñu yëkëti yar ci nit ñi. Mhm. mais malheureusement euh, da xëy na tamit dañu xamul. xëy tamit dañu xamul. mais dafa laaj dafa laaj euh, peut-être ñuy def ay comité scientifique ci biir médias yi ñoo xam peut-être ñoom ñooy aider ñu trouver yenn orientation yi. comité scientifique pluridisciplinaire mhm. avec un historien avec un sociologue avec un homme de lettres etc., mais l'idée moom mooy benn comité scientifique boo xam ni euh, moom mooy travailler ci ay thématiques ñu orienté oh, vers des thèmes yoo xam ni mën nañ ci xalaat quoi parce que yooyu ñi ngi koy perte bàyyale sens bi dëgg-dëgg gars yi ñi ngi koy perte ndeyale sens bi dëgg-dëgg dem nañ ba boole ci ay magale ay nijaayale ay et cetera te loolu yëpp euh, di ci def rek ci loolu yëpp aspect économique bi rek lañ ci xool léegi dañ la mhm. ah, alors que li ko taxoon a jóg lu rafet a rafet a rafet moo ko taxoon a jóg macha allah vraiment yàq nañ macha allah professeur ñu gis ni euh, ñu am ñaari entité yoo xamante ne peut-être bu jagoon société bi bu jag mu nekk domaine commu euh, communication benen domaine bi mu domaine éducation ñu gis éducation domaine dérive ci am barina communication aussi tamit ba ci communication gouvernementale bi nga xamante ne jël nañ ko bi mbass bi amé la manière dont l'État a communiqué est-ce que gënul pousser les populations ñu ñu ñu ñu doye dal feebar bi ci dëkk bi. non dëgg la li nga wax dëgg la communication man dama ni déjà feebar bi bi mu dugg see dañ ko waroon a ngénte. dañ ko <laughs> cest à que xam nga xam nga <laughs> loo gis corona bi ci boppam dafa xaw a tiital nit ñi. te tubaab bi ñoom ci seen bopp niñ ko ngéntee baaxul. sur sur communication la fa am. waaw xam nga corona. Mhm. mooy couronne. Mhm. virus bi dafa am benn affaire bu bu ko bu ko muur buy niroog couronne mhm. mais couronne buur moom moo koy am léegi nga jël virus bi tuddee ko buur erreur la mooy virus bi moo la mën. may nga ko doole déjà may ko doole ci tur bi rek may nga ko doole. donc corona du tur bu baax. léegi bu bi mu ñëwee ñun dañ ko waroon a ngéntewaat tuddee ko sibiru bu bees maanaam tuddee ko tour boo xam ne ñun xam nañ ko. Mm-hmm. ok mais da koy tuddee tur boo xam ni diw dafa corona xam nga dafay indi stigmatisation. Mm-hmm. mais diw dafa sibiru est-ce que stigmatisation la. voilà tur baa baaxul. loo xam rek di nga xam noo koy appréhender da nga ko ñeme mhm. sibbiru bu bu bees parce que soo xoolee ko ni ñu ko définir sax bu bees la grippe la rek si sibbiru bu bees la mhm. tuddee ko si sibbiru bu bees léegi nag nga expliquer nit ñi ni naka ngay def pour xeex ak sibbiru bu boobu léegi buñ nee diw dafa sibbiru wala diw si sibbiru bu bees yi moo ko dal moo gën a nooy ci diw dafa corona su ko defee nag su génnee ñu am na ko mooy moo une stigmatisation. Mhm. donc gis nga lo lo gis rek ak nuñ koy euh, nu ñu koy nuñ koy jëlé mhm. bon <clears throat> après mu indi effectivement problème de communication parce que nit ñi teeluñu leen a waajal ci loolu. c'est-à-dire approche communautaire bi buñ ko mhm. télo a commencé euh na mi ngi sida bi mi ñëw au commencement ni la démé won diw dafa sida diw dafa et cetera. ñu lay daw di la beex di la stigmatiser. mais mu ji bu ci communité yi duggee ñu dugal ci communication yi bàjjenu gox yeeg ñëpp di wax nit ñi dem nañu ba. ba miis ko ba miis ko ba bon voilà mën nga dund ak moom. de la même manière corona virus nekk na loo xam ne dañ ko wane mais am na lu gën a garaaw luy loo xam ne moo ëpp lu muy rey fii. ci réew bien sûr. sibri li muy faat coronavirus daa faat gan wa genn wàll gi. faatul genn wàll bi. te te bi amul woon communication bu mel. c'est mm-hmm. ça donc moo tax loo gis rek aussi si ak ni ñu ko ni ñu ko communiqué am na nu ñu ko doon communiqué nit ñi dinañ ko comprendre dinañu jël seen matuwaay euh, pour xeex ak affaire bi mais euh, voilà parce que au début dañu créer benn panique généralisée. boo xam ni euh, ñëpp dañu jaaxle trop trop trop daal ni mais lii lu mu doon. Mm-hmm parce que tëj économie bi tëj aéroport rek et cetera doy na quoi. bien sûr yokk ci nag yoo xam finalement. vraiment Wa cool yi et cetera et cetera am na. nu ñu ko doon seen boulot yooyu. seen boulot nit ñi dafa am loo xam ni dafa xoqatal nit ñi dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. alors donc heureusement nak bi ñu demee ba ressaisir euh, jàpp ni léegi il faut que nit ñi comprendre que sibiru la et que feebar bi nit ñi mën nañoo xeex ak moom. Mhm. mais li wara war a def rek mooy moytu surtout mag ñi jéem leen a protéger protéger ji nga xam ne tamit dañuy am yenn maladie chronique yi mais pour le reste les jeunes ñoom mën nga am feebar bi ba mu wér te si yow ci sa wàll bopp sax doo ko yëg. Mhm. mais fexeel ba bul ko wàll kenn rek. Mhm. Euh, donc te ni nga ko mën a bañee wàll kenn mooy nga respecter mesure barrière yi ñu wax. Mhm. loolu dong la donc sinon feebar bi mën nga dund ak moom ba wër sax doo ma sa yëg ni yow feebar nga. est-ce que en tant que sociologue aussi tamit euh, libellé bi est-ce que posé wul problème cas importé cas communautaire yo est-ce que gën woon ñu rek non c'est la maladie est là euh, tant de personnes am nañ ko. mo gën ñu ñu tas ko ni en tout cas en Europe amul ñëpp cas yëpp. cas communautaire ñun fii rek ngay dégg lolu effectivement parce que suñ xoolee tay ñuy dégg commu euh, communiquer bi. Mhm. dañuy japp ni tay euh, cas contact. Mhm. kooku jàmbaaru médecin bi la moko ko gis. Mhm. mais cas communautaire am askan ñoko tay waaw loolu dafa mel. loolu tamit y' a un problème foofu tamit am nañu problème communication côté boobu. waaw parce que soo xoolee su ñu nee cas communautaire ñu ne 30 wala 10. Mhm. dañu naan askan bi dañoo sàggan. Mhm. te su ñu nee cas ñu wax ni askan bi dañoo sàggan. Mhm. waaw waaw waaw e-, effectivement. yëpp yëpp daal euh, nañu fexe ba mesure barrière yi et puis xam ne nit ki mën na jël ay mesure barrière yëpp ba pare am ko nag. waaw c'est-à-dire que mesure barrière amul ben mesure barrière bu efficace à 100%. pour cent mhm. mën na am ben fay bu ndaw parce que mën nga ñëw fo toll ya ngi sol sa masque ya ngi moytu ya ngi respecter la distance physique et cetera mais ci kër nga dëkk aussi mhm. kër ga nga dëkk am na nit ñi nga xam ne da ngay ñëw ñenn ñi dañuy añ bokk benn bool euh, fu nekk foofu mën na faa jóge foo xam ne mënoo koo contrôler nit ki aussi mën nga dëkk ak moom mu feebar xamu ko Mhm. ngeen bokk xamu yow tamit xamoo ko mën un asymptomatique ngeen bokk bool di añ ngeen mhm. donc c'est c'est dafa dafa dafa xaw a dafa xaw a compliqué mhm. wala objet a bokk ci kër a objet mën na affaire a lu mu mënti doon bunt mu pare fekk toujours foo toll di di pomper bunt di di pulvériser da koy laal bàyyi yow tamit nga yu demee noonu donc nañu moytu c'est vrai moom moytul foo toll mais ñu xam ni aussi cas communautaire waruñu ko stigmatiser waruñu jàpp ni dafa nekk loo xam ni euh, lu a grave loolu stigmatisation bi moo tax ñu bëri dina bëtu mhm. moo tax ñu bëri dina bëtu euh, voilà. ok ñu ñu foofu la ñuy jël suwaatee sax ci lancement bi nga xam ne moom ngeen war a def suba. Mhm. incha allah fii ci mairie bi 16h. Mhm. ak ñi nga xam ne yéen a bokk yéen a taxaw bokk bokk na waxtaan boobu euh, yaakaar nga ni dina non non euh, xam nañ ni du du yomb mais par contre li nga xam ni rek moom moo ñu ci gën a soulager un peu jox ñu ci espoir mooy engagement bi nga xam ni gis nañ ni nit ñi am nañ ko vraiment gis nañu chef de quartier yi mobiliser nañu mobiliser nañu bu baax a baax a baax mm-hmm. bàjjenu gox yi moom waxaale wu ma leen mm-hmm. euh, elles sont vraiment trop mobilisées même alors les ASC aussi même chose très très très mobilisées man mobilisation boobu euh, moo ma ci jox espoir et j'ai dit que li ma ci intéressé mooy ñu lancer et puis seetaan nit ñi ñoom ñu def li ñuy def mm-hmm parce que après liguey communauté bi la nekatul nekatul suñu liguey ñun buñ ko xasse ba lancer léegi communauté bi ñom ñoy organiser wu ñom ñoy et cetera j'avoue que nag depuis ce matin ma ngi jot appelu président ASI, euh, ban heure le, nak la ñu wara taxawé ndax dañu wara ñëw ak suñu mayo ndax et cetera et cetera bon je dis très bien euh, le fait que déjà ñu xaw ko intégrer non ba paré ñu commencer ñom ci seen bir di xëccio parce que kérok ben réunion euh, ñom ku nekk ne nga may gagné. Mhm. Euh, déjà euh, esprit de compétition bi compétition bi mhm. donc je me dis que nous euh, nañu lancé et puis après nous gardons la dynamique c'est-à-dire même si nous avons ba xeex affaire yi ba mu effectivement mais am na affaire affaires yoo xam ni war nañu continuer mhm. par exemple les grossesses précoces. les abandons etc 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo salaamaaleykum sëñ bi noo def ah macha allah kooku rëcc na euh, mën na defaat 88 def 628 10 95 88 628 10 95 mbokk auditeurs yi ànd ak Safina FM ci 98 point 2 ak euh, mbokk téléspectateurs yi ñuy suivre ci Safina TV macha allah euh, bu ñu defee 88 def 628 10 95 88 628 10 95 ñu bokk ci waxtaan bi incha allah ñu ànd ci ak monsieur le professeur Djibi Diakhaté di sociologue di enseignant chercheur préfet ci université université Cheikh Anta Diop bu Dakar di euh, fële ca université Evry bu France macha allah. moom itamit euh, professeur nek directeur euh, bu recherche bu centre bi di IAM manam institut africain de management bokk nek nekk membre it ci CNRA macha allah moom dalal tay, euh, ñu waxtaan waxtaan bu am solo ci boor yëpp macha allah nañ ci Covid bi wax nañ ci comportement wax nañ ci éducation macha allah ñu war a tëjee li nga xamante ne nag plateforme communale de riposte bi nga xamante ne moom la ñu tëral ngir xeex mbas mi di coronavirus. religieuse ci loolu nak demé ñu wara am déplacement bu nga ci invité population bi professeur waaw waaw ma ngi ñom tamit lan mo ci sen taxaway waaw euh taxawaayu population bi moy ñu uh, engagé wu rek surtout ci sensibilisation bi parce que niñ ko waxé moy malheureusement amna ci ba légui ñu gëm ni fièvre bi amul. waaw da, surtout donc nañu nañu gor gor rek ci waxtaan ak ñoy euh ensuite nak amna ci ño xamné euh dañu am ay problème pour am masque. ok Euh, ok gis nañ gis nañ mbërki dem ngeen génnee ci masque yu bare bari. bon heureusement waaw le préfet de Dakar euh, jox nañu ay masques yu am solo euh, le directeur du port jox nañu ay masques le maire jox nañu ay masques actuellement on a au moins dix mille masques. Mhm. donc dinañ ko séddale euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci ASC mais li ñu bëgg a wax rek mooy ñi nga xam ni am nañ ko. ñu ak ñi nga xam ne amuñu quoi. ak mu bañ a doon xëccoo. waaw parce que boo ko dee xool am na ci ay ASC yoo xam ni gis nañ ko ñoo xam ni fa ñu féete. Mhm. presque ñëpp am nañu masque ko par contre am na ci zone yoo xam ni nit ñi ñu fa la ñu gën a amee jafe-jafe. Mhm. donc bu ko defee ñu laayante biir rek euh, ba képp koo xam ni mënul am masque ñu jàppale ko mu am masque am. Mhm. bon naka noonu aussi euh, madaar yeeg yooyu ñuy distribuer. ci zone yi ñi nga xam ni yàlla def na ni mën nañ ko amal seen bopp ñu bàyyi ñi nga xam ni amuñu mu gën a mu gën a am foofu. léegi nag mu am zone yi nga xam ni dafa compliqué trop maanaam zone marché yi parce que Grand Yoff am na ay quelques marchés yu fi nekk. Mhm. deux à trois marchés. Mhm. am na tamit benn marché bu ñuy wax maquette bu nekk fële euh, ci côté Shell bi na la ca ca ca fond euh, voilà foofu xam nga zone de transit la dem beeg dikk bi dafa bëri. Mhm. foofu tamit dafa laaj vraiment intervention spéciale. Euh, ñu jàppale nit ñi foofu ñu ñu am produit yi ñuy mën a raxasoo et cetera et cetera mm-hmm. ñuy takk masque yi parce que nit ñu bëri dañuy dajaloo foofu. Mm-hmm. mais euh, loolu yëpp on en est conscient euh, zone yi nga xam ne mooy nekk zone à haut risque yëpp identifié nañ leen. Mm-hmm. xool naka lañ fay intervenir mais l' objectif daal comme ni ñu ko waxee mooy ñun ci suñu wàll bopp jox nañu suñu bopp delewu quinze 15 jours. tey ñaan dimbalu yàlla ci loolu. ci quinze jours yi ñu yaakaar ni bu ñu fa yeggee yàlla mën na def à Grand Yoff cas yi bu fi jógewul tamit mu wàññeeku bu baax a baax a baax a baax bon maintenant na def tache d'huile euh, ba ñeneen ñëpp euh, mm-hmm. suivre boobu boobu exemple commune yëpp liggéey ci loolu je crois que buñ ko buñ ko liggéeyee yàlla mën na def euh, commune en tout cas communauté yi le simple fait que nit ñi jàpp ni seen yëfu bopp la. Mm-hmm. déjà c'est un combat de gagner et loolu c'est important. macha allah ñu gis ni foofu la mujjee sax temps bi daanaka xoj nañu sénégalais mën njëlbeen macha allah ñëpp dañuy wuyu si mais suivi bi ak continuité bi lan nga ciy wax population bi par rapport à ça. waaw seen yëfu bopp la parce que compétition la. looloo tax ñu indi esprit compétition. Mm-hmm. parce que y' avait que deux possibilités. Mm-hmm. première possibilité bi mooy nga dem ci nit ñi yedd leen. Mm-hmm. ne leen bon nit ñi daal affaire bi dafa garaaw et cetera est ce que doo leen ñu déglu la ñu ah sa wax ji de wax ji rafet la ñun dinañ def loolu. buñ ko defee tamit ñaari fan lañ koy def sonn. beneen possibilité bi mooy nga créer compétition. boo xam ni dafa am xam nga loolu c'est important parce que loolu mooy motiver nit ñi. Mhm. effectivement joxante bu soo xoolee fukk bi nawetaan amoon. voilà suñ ko joxee importance suñ ko joxee Covid bi day am solo. loolu mhm. kese la maanaam motivation bi am ci nawetaan mhm. engagement bu nga xam da leen di jaral sax rayante ah. à la donc loolu la ñu bëgg a jël reversé ko fii. mu nekk benn compétition au contraire 15 jours yi dafa gàtt parce que compétition nawetaan ah, dina jël ay 3 mois 4 mois day dem yenn ba décembre. Mm-hmm. Mm-hmm. bii c'est juste 15 jours la ñuy jox suñu délai. Mm-hmm. maintenant au bout des 15 jours on va évaluer. dox na wala am lu doxul sur quelle base L'évaluation évaluation se fera sur quelle base alors ci ah, ah, waaw compétition la te 19 nga wax. waaw léegi nag mais il faut que ñoom Hajj pense rek ñëpp jàpp ci. parce que on a une plateforme boo xam ne nit ñi dañuy dugg ci quartier yi di dox. effectivement parce que loolu la dañuy dugg ci quartier yi di dox di xool di vérifier est-ce que le travail de sensibilisation est en train d'être fait. Mhm. mën naa jékki-jékki rek dugg ci benn kër laaj kër yi eh, est-ce que gars yi mhm. ñëw nañ fi. Euh, dem ci benn boutique est-ce que gars yi gis nañ la. est-ce que et cetera et cetera et cetera. donc loolu la il faut que bon Hadj Mansour. il faut il faut il faut télévision bi. voilà maintenant nag comme ni ñu ko waxee woon rek ñi nga xam ni aussi ñi ngi am ay produits yu ñu bëgg a gën a fësal. je crois que c' est ñu gën a jege Safina parce que di di ngeen gën a di ngeen ak ñun. ci terrain bi et puis vraiment. ça dépend ci yéen am une de temps boo xamante ne d' interactivité entre les ASC incha allah taala. bàjjenu gox yi dañ ci mën a jàkkaarloo kenn ku nekk nam taxawee parce que tamit mm-hmm. euh, dañoo toll si jamono joo xam ne il faut taxawal suñu bopp absolument c'est important waaw kenn ku nekk gox ba nga nekk nga bañ a xaar kenn absolument loolu tamit ci laay wala ci laay jaare à travers am deno Safina mm-hmm. wax mboolem ñi ñuy déglu doomu gox bi dañ leen jege si jàpp si mm-hmm. parce que du yomb comme xam nañu xeex bu yombul la bu kenn toog sa kër rek euh, ni man moom maa sama kër lépp baax na non na kenn ku nekk jóg même su dee da am na apport booy def sax mel nga nga jege ji comité commission bi. dimbal leen ci dafa am solo. te nit ki bu mu bu mu xoolati lan la ko lan la ko quartier am. war a indil wala ko indil. mais na xool moom lu mu mën a indil quartier parce que lenn ku kenn ku si nekk. dafa war a am lo apporter sa quartier. dëgg la su dee amoo temps pour taxaw ci. sa activité sa liggéey am nga sa poche. jege ji leen. dëgg la am nga sa xalaat bu rafet. jege ji leen. parce que loolu mooy dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain te quoi qu'on puisse dire Hadj Mansour instant bii nii ñi sonn na ñëpp sonn nañ ci coronavirus bi donc hmm. lépp loo xam te war nañ koo mën a def rek pour mbas bi jóge fi nit ñi reprendre suñu activité normale yaakaar naa war nañ cee soobu professeur lan ngay daanale mais li may daanale rek mooy ñu jàpp ni mbir mi mbirum ñëpp la hmm. Hmm. Euh, du mbiru bu ñu jàpp mukk ni dafa am ñu nekk ci kaw am ñu nekk ci suuf déedéet ñëpp nekk ci kaw wala ñun ñëpp ñu nekk ci suuf loolu moo ci ne donc <laughs> ku ku ci nekk rek yi ak domaine boo mënti ne mm-hmm. moo xam ci garage mécanicien nga nekk moo xam maçon nga nekk moo xam képp ku ci ne am nga loo mën a def am nga loo mën a def am nga loo mën a wax mm-hmm. donc ñëpp nañ ci dugal seen loxo bu ñu jàpp mukk rek am na ñoom groupe boo xam ni ñoom ñoo toog euh, di jël ay décision non loolu buñ ko xalaatee rek yàq nañu lépp mm-hmm. parce que gisoo sax ci biir wax ji wax naa ni bu fi kenn wane rëy ñun ñëpp ñun ñoo bokkandoo nekk ci suuf ñun fii moom ñun ñëpp ay ndongo lañu donc nañu fexe ñu def ko suñu yëfu bopp ñun ñëpp et puis je crois que buñ ko defee euh, yàlla euh, dinañu yërëm dinañu dim dinañu dimbali ñu profité ci nag tamit daal di jégalu tuub suñuy bàkkaar euh, parce que bu ñu fàtte ni tamit euh, dañoo gëm moo xam nag loo xam moo xam diine boo gëm mhm. euh, te comme ay woy gëm lañu li ñu mën a def mooy tuub di jégalu tey ñaan yàlla tàllal ko suñu loxo mm, toroxlu ñaan yàlla mu jëleel ñu fi mbas bi nu mu gën a gaaw incha allah taala merci professeur Hadj Mansour yàlla bu baax baax jaajëfal ko moom wax dëgg yàlla mhm. ci ku nekk xam na xat na mhm. surtout si jamono ji ñu toll waaye mu may ñu occasion bi pour mën a déglu surtout mu génnee fi loo nga xam ne damay wax ni benn buñ ci càmbaraat euh, rek da gis ni njariñ la pour réew mi njariñ la pour àdduna na ñun ndaw ñi mhm. ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax gis nañ sa taxawaay ci réew mi jaajëfal mbooloom ñi nga xam ne ñi nga àndoon ak ñun suñu technicien suñu cadre caméraman maam Cheikh Sarr mhm. euh, moom it ñu nuyu ko bu baax a baax nuyu Hadj Birane nuyu mboolem waa équipe technique bi yëpp mhm. nuyu ñoom seen ñoom ñëpp rek ñaan yàlla mu may ñu incha allah suba incha allah ci lancement bi ñu bàyyi la ko xel ñëpp fii lay amee ci Safina incha allah lépp lu ci mën a xew fu mën a nekk ay say yi kenn ko rek daañu la fekk sa kon macha allah sa biir mhm. mbokk auditeurs yi déglu Safina FM ci 98 point 2 du seetaan it ci Safina TV macha allah fii la ñuy yem ak seen émission taxawu askan bi di remercier nag suñu professeur Djibi Diakhaté macha allah euh, muy guléet mu toog ci plateau Safina waaye nag incha allah kenn du ndax du fi gëj bu neexee yàlla daañu am yeneen i plateau ak yeneen i thème yoo xamante dana soxal askan bi ñu waxtaanee ko incha allahu taala ñu ngi lay remercier bu euh, Euh, euh, macha allah ñoom ñëpp macha allah nuyu nañ leen euh, ziar nañ leen te kontaan nañu it ci taxawaay bi di remercier tamit maam Cheikh Sarr mi féete ci caméra bi macha allah di leen jox dig daje ba ëllëg ci beneen thème ak yeneen invité ñuy may équipe rédactionnelle bi macha ñu taxaw ñoom ñoom léegi léegi defal ñu édition bi en pulaar allah allahu taala